non je suis désolée. Mm-hmm.

s'il vous plaît bah, je rappelle que s'il vous plaît je rappelle je rappelle s'il vous plaît je vous je rappelle s'il vous plaît malheureusement s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je rappelle que bah, s'il vous plaît bah, je rappelle que je rappelle que je rappelle

may ma daaneel bokk ngir yàlla. yéen yéen voilà merci beaucoup yéen commencé ngeen commencé ngeen ko commencé ngeen ko ci commencé ngeen ko mu gën a baaxee. ñu dafa war a passé tey ji ay candidats lu mel ni ay RDC ñuy comparer le Sénégal à la RDC de Kabila gàcce ñuy rey. di waa léegi waa léegi je vous en prie je vous en prie on va terminer en beauté on va terminer en beauté s'il vous plaît mais s'il vous plaît vous avez des téléspectateurs aussi il faut les respecter minimum Ouais, s'il vous plaît Ouais, d'accord Ouais, s'il vous plaît respectez les téléspectateurs je suis désolé euh, euh, euh, Khadi. voilà parce que je pense qu'aujourd'hui, les liens du handball sont des femmes à féliciter. Parce que merci beaucoup. voilà, merci beaucoup. je rappelle aussi, je rappelle, s'il vous plaît. Permettez-moi de terminer en beauté, s'il vous plaît. Voilà. Je rappelle que nous à mon mbekté, s'il vous plaît. Je rappelle que nous mon mbekté dans le petit plateau, madame euh, Thérèse Faydiouf. Moi, coordonnatrice convergence des jeunesses républicaines, directrice euh, Kourel Guignou Agence nationale. Voilà, d'où parce que que ñii dafa mel ni permettre leen ma ma terminer en beauté au moins madame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 bu la àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax. allahu akbar alhamdulillah. billahi min ashaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki seetaan ndénkaane del si waa altine ba alxames lañ koy amal ñuy nuyu di ziyaara képp kuy seetaan foo manti nekk ñi ci biir réew mi ñi tawat ñi di sooxaaleeg seen jàngoro ñëpp yal na yàlla saafara leen ñu nekk ci yoon di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekk jàmm delluwaat ci jàmm fekk ñu nek ci xar-xar yalla genn leen ci na suñ mbokk yi ci kasso yi yalla na yàlla génn leen fa ñu wat ci seeni activité di ñaanal mbokk yi faatu tudd ci bàmmeel ñom ñep yalla yàlla wax ay bi sayda Adama seddo waxando ko ak sayda Dayna fal mi daan tok fi di jang ji yalla ta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ñoom ñëpp yàlla nañ ko wax yalla yeeram kep ku faatu ñun ñu fi dess yalla bàyyeendu fi bàyyeendi nu fi yalla tek ñu ci yoonu njub ba kërëm ñu leen di fekki di sant di gërëm képp kuy seetaan foo mënti nekk di leen bàyyi xel comme ni ngeen leen comme ni ngeen ñuy bàyyee xel yóbbante yeeg SMS yeeg woote yeeg yépp ñu ngi ciy jot yal na yàlla euh, fayal nu leen yiw ndax ne seen yëf la du sunu yëf yéen ñu ko dénk ñu koy delloo bu waxtu wi jotee ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen toogaan na ñu nu baaxoo di àndal ci émission bi a Birama Bassine Diop borom Louga jaar Kaolack ñu nuyu ko bu baax a baax ziyaara ko waaye ku ma namoon ñu gëj a bokk plateau. naa borom njur ak njanaaw. Euh, ma waxaat rek onze billahi mina seytaan rajim nuyu ko <laughs> nuyu ko ziyaara ko bu baax a baax ak xam nga rek macha allah ñu ziyaara ko bu baax a baax a baax waaye lekkaloog bi euh, maire Thiama boroom kër ga waaw euh, dégg naa fan yi daa demoon kër ga ñu nuyu ko bu baax a baax ziyaara ko kër ga Euh, di nuyu docteur euh, Rose euh, tabarakallahu di ko ziara Rose Wardini mhm. macha allah di am mbégte bokk ak moom jataay ndax thème bi ñëkkati di ko waxtaanee. Mhm. xam-xamam da cee màcc lool macha allah. ñu sant ko gërëm ko jaajëfal ko ci wuy si bi. Mhm. ndax xam nañ seen xat ak seen liggéey ni ñu jàmpee. waaye buñ la wooyee nga wuy si macha allah loolu bëgg baaxe askan wi la ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax. dañuy dem studio 2 fekk fa Modou mbàkkee mu jukkil nu. këru yëglekaay yi lan moo ci gën a fees Modou Mbacke salaamaaleykum. waaleykum salaam ya ustaaz. ñu ngi lay ziyaara lu bare bare. ñu lay ziyaar bu baax naka suba si. ñu ngi sant yàlla naka lu tàngali. waaw ma nga fay kii rek. kiyego. waa kiyegu ma dama bëgg su kiyee ma kiyee la nga kii après. bu ñu kiyee ba kii. waaw bu ñu kiyee ba kii nga bi ñu kiyee ba kii dama laa kiiwul. pourtant nag kii woon naa la ñu ne ma kii nga pourtant kii woon naa la nag mais xam naa bi nga kiiwee fekk nga ma kii waaw tey nag bu ñu kiiyee kii dégg nga incha allah yëglekaay yi lan moo ci gën a kii yaa oustaz yéenekaay yi xëy di génn lan xëy sakkan na lool bokk na ci tolluwaayu réew mi nga xamante ni bi fi ñu dëgmal élection tax na ba réew mi mel ni lu jëm ci jax-jaxe diggante opposition pouvoir turbine xëy wàllu guni mel yëglekaay bi nee na démb de opposition boole seen bopp ci genn kuréel ña nga woon ci dolluwaayu bokk gis-gis waxtaane élection présidentielle yi mbirum parrainage waxtaane dépôt candidature yi waaye tam waxtaane conseil bi nga xamante ne bii la fa xew barki démb jaaxal na leen ñoom nag nee ñu daal mbir yi faaw mu leer ndax nag tam dañu bëgg sax génn ci mbedd mi yëngu-yëngal dox doxum ñaxtu dem ba ca conseil ndax gis na ni que lan gis mbir ya fi ñu toll ni tembe dépôt ak ndax dépôt fiche yi nga xam lan def mbirum parrainage bi kees yéen ko def daal kenn tëju ko ay labaj mën na caa am lii moo tax ñoom daal ñu ni fi toll ni defante mën ta ñàkk génn manifester jàppal tànk Khalifa Sall ak Karim mi nga xam bi Macky daf leen a bëgg a génne ci élection présidentielle yi la turbine moo xëy wàllu guddi mel yaa oustaz leesee ko moom itam ci na fi ne kay caaxaan faaxe jàmm jeex na ala ci la gaa yi wax defante mënta ñàkk ak Macky Sall mi la buur ba lu soxal pencum ndaw réew mi nga xam te ni bi naan barki démb de député yi dañoo woon ginnaaw assemblée nationale nekkoon ci congrès bi nga xam mooy congrès waa APR bi les ko ni waaw du ñoom donc waa APR waaye même député opposition bi nga xam te ni bi dañoo nekk ay candidat ñoom ñëpp ñëwoon ginnaaw pencum ndaw réew moom nga xam mooy pencum ndaw réew ma enquête moom ñëw ba tey mbirum élection présidentielle yi yëgle kaay bi nee na na yi ànd ak teey waaye itam ànd ak vigilance gu wér ndax nag fi ñu toll nii mën naa amaat dana am modification ci carte électorale bi carte électorale mooy mbir mi ni ñu war a voté ku ci ne sa bureau ba nga war a voté waaye tam ku ci ne ban centre de vote nga war a voté loolu lépp ministre bi ñu dénk intérieur muy Aly Ngouille Ndiaye moo ko war a leexal askanu Sénégal moom nag am na ba le 24 janvier 2019 ngir nag mën a wax ci wàllu guni mel ci mboolem département yi Sénégal waaye itam mboolem région yu Sénégal yi enquête xëye wàll googule source a moom itam jaar ci beneen mbir yëgle kaay bi xëy na mbirum Karim Wade bi nga xam te ne Karim mooy candidat waa PDS bi Karim nag jot na ab carte d'identité biométrique yam ma ngi ko jot fi nga xamoo ci kawet waaye lañ ci bind mooy daal Karim moom nekku ci liste yi ci bu defoon ndànk a wote moo tax yéen Karim naan mbaadu cerey Karim dafa nar a xajam jëm élection présidentielle 2019 l'observateur moom ñëwaat na ci beneen coow bu lëmbee Sénégal te mooy ger gu metti gi am ci gendarmerie bu Sénégal gi yëglekaay bi ni ay caisse fictif la ñu gis ay nit doon ko doxal di ca dugal ay xaalis bu bëri ba noppi di ko paacoo ci seen biir lu di mel moo tax nag ba mbir ma feeñam général Cheikh Sène dafa mer lool dagg dagganoo ya teg fi mu toll nii sax bëgg a bëgg a rëkkandigul ñi nekk ay alkaati yu nuy du nu baal kenn lenn daañu def kem kàttan ba teg ay daan yu diis waaye nag pëcceexu ak ñàkk a déggoo moom ci wàll gi kilifa yi seq armée bi daal am na ca ak ñàkk a déggoo ci mbir yooyu nga xam mooy doon xeetum daan yi vox pop yaa oustaz moom itam ñu ci beneen wàll dafa xëy wone Sénégal Ndakaaru capitalu Sénégal ni mu xayadee maanaam daal jalu mbalit yi moom foo ko takk jéggi na ko mi ngi yaataa yumbe ànd xet gu naqari ga fay jolli ku ci ne ak ay pexeem waaye ba léegi sottiwul yëgle kaayam nag ni mbaaru Sénégalais moom daal yàlla da ko mooñaale ak li nga xam mooy salte ba tax daal salte gi moom foo ko takk na ko ci mbedd ndakaaru yi nga xam mooy eh, capital bi waaye itam capital boobu am na benn quartier bu mag bu ñëpp a xam muy googee de njombe amati na fa benn soxna moo fa defati njombe boroom këram yëgle kaay bi ni daal couple bi nga xam si mooy diggante monsieur kan ak madame Kane madame kan daal ndekete la mu bëggoon la amut ndax boroom këram daa wàcc guddi sonn lool mu bëgg daal mm, def la mu war a def waaye daal monsieur amul kàttan xëy na coono jàpp na ko madam kan amul benn pexe lu may daal yor ko ba ne ciix euh, ca tubéyam daal di koy matt matt gu mette métte métti yëgle na nee yuuxu yi sax moo yeewaa Médina ba fi mu toll monsieur Kane moomee soxnaa matt matt gu metti ci ay cëram ma nga ca l'hôpital waaye xaw na koo gaañ yaa oustaz madame moom mooy kan waaw madame Kande am njóobeen la. <laughs> ah madame Kande turam sax turam sax mi ngi ci biir quotidien bi waaye xam nga rek par respect aussi. Eh, joxe tur gi day xaw a doy waar moment bi moo tax ma tëyandi ko en attendant. madame Kane moom lii mu def nii mooy lan. ah waaw doy na waar de. doy na ah, waar lool doy na waar da nga kiyam doo kii daal bu ci kii amee noonu yaa oustaz. doy dana doy waar lool doy lool. ndax loolu rek sax dana waral loolu ndax amul leneen lees waxut. mu doon nag lu aaja enquête nag. Mm. ndax fi mu toll mbir mi ma ngi ca loxol euh, ma ngi ci ma ngi ci justice ah. Mm. Euh, monsieur Kane ma nga l'hôpital ndax duñ ko xaw a gaañ. Mm. Euh, ci ci li nga xam mooy en tant que borom kër lay tax ñuy wax borom kër dëgg-dëgg. loolu nag mu xaw a waar nag ndax bu demee ba daal ba ñuy wax ay sotti ndox mu tàng ak taal a lakk ak a faat tey ñuy màtt ci patrimoine bi daal doy na waar yaa oustaz doy na waar la. ah wolof yi wax ku yàq sa tuq si ngalam da nga riiti que tuq gi boo ko yàqee vraiment doo yow jërëjëf doy na waar Modou Mbacké gërëm naa la bu baax. kon ba ci kii ñu kii. waaw maa ngi génn kii foofu. waaw après ñu kii incha allah boo bu pare. d' accord jërëjëf daal rek kàlla ñu yàlla jaamu. <laughs> kooku mooy Modou Mbacké ñëpp dañ koy nekk bëgg a xam këru yëglekaay lu nu xëyee macha allah mu koy indi ci anam ga mu gën a ñu sant ko gërëm ko Oustaz Birama Bassine Diop salaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. aouzu billahi min acheytaani rajim. wala xawla wala quwata illa billahi al aliyi al azim الحمد لله رب العالمين wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin Oustaz Makhtar maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu Seexuna ak suñu gan gi di docteur Rose Wardini di nuyu yaay booy di ko nuyu bu baax a baax di ko yóbbante nuyoo ak waa kër gu mag ga incha allah Oustaz di nuyu rek comme ni ñu ko baaxoo di def nuyu waa Louga ak Ngoufat doo ko dem Jolof ak Kaolack incha allah nuyu leen bu baax a baax duyu mbooleem ñi nga xam ne nag ñi ngi seetaan ndénkaane Euh, comme ni ñu ko waxee woon rek ñi borom message yeeg euh, yi sa aju yëpp wax dëgg loolu dafay wane rek euh, tolluwaay yu ndénkaane fi mu toll di ñaan yàlla ñaani ñun ñëpp yàlla nañ ko bokk mu dellu si kër gi ak borom kër gi ak ñi fiy liggéey ñëpp ndax liggéey bi bu rafetee ba ñu ngi di ko di joxe ay témoignage fu nekk am na ay caméraman ak caméra woman ak preneur de son yeeg ñu nekk risée ñooñu kon ñoom ñooy ñi nga xam ne kenn du leen gis te ñoom ñooy def liggéey bi macha allah kon yàlla na yàlla kàtt leen yàlla yàlla yokk leen yàlla yàlla gën a jëmale kanam liggéey bi oustaz di nuyu ñëpp xam naa comme ni ñu ko waxee rek li gën a fes si yëglekaay yi booy xool mooy euh, approche élection yi toujours toujours toujours loolu mooy feeñaat toujours Sénégal politique la ñuy waxtaane mu nekk nag lu am am solo mu nekk lu ama am solo ndax Sénégal réew la boo xam ne dafa am histoire si wàllu démocratie Euh, am nañ internat def nañ ko euh, ba wak euh, def nañ ko ñaari yoon yoo xamante ne bii jëlee nañ fii ki fi nekkoon indiwaat keneen jëlewaat fi indiwaat keneen te keneen dafiy jógee keneen di ñëwaat ndax bii la wala bee la ala kulli xaalin li am solo ba am solo mooy bu ñuy dajaloo ngir am lu ñuy xeex ndax front de front de l' opposition bu ñu koy wax ñoom ñooñu nga xam ne ay opposant la ñu ay doomi jaamur ñoom ñooy taxaw ngir di leen xeexal seeni mbir oustaz bu ñu fàttalikoo am na ku tuddoon Mamadou Diop mu génnoon àdduna si temps wu élection 2012 milliard bu ñu ko joxoon waa këram du tax mu dellusiwaat bu ñu ko tuddee woon boulevard yi nekk Sénégal yëpp du tax mu dellusiwaat kon ñun ndaw ñi nañu bàyyi xel ne dañoo am njaboot dañoo am ay woyjur dañoo am famille. ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne dañuy xeex ngir réew mi am na ay réew yu gën a rëy Sénégal yu gën a mag Sénégal te danañ def élection ba pare d'accord xëy na euh, am na loo xam ne buy am itam dana am coow ak la cay topp wax dëgg yàlla waaye bakkan moom. dafa nekk lu foor kon kenn ku nekk na nga jéem loo mën ngir conserver sa bos ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy xëccoo réew mi bu ñuy génn dina marché duñu yóbbaale seen doom yi loolu laa bëgg a wax maanaam tey jii duñ fees président Macky Sall na yóbbu Amadou mhm. Sall na yóbbu doomam Sonko na yóbbu doomam keneen ak keneen na yóbbu ngi teg leen ci kanam bu fekkee dañu bëgg a jàmmaarloo buñ ko defoon rek même bu dee Macky Sall bu mënta yóbbu Amadou aussi mu yóbbu Mama Thiama mu dem ah mu ne na ko yóbbu mu dem na taxaw c'est-à-dire yaay li ñu bëgg a wax foofu rek mooy nañ bàyyi doomi jaamur yi ñuy jël di leen joxe bàyyi seen i doom waaye ñun tamit nañ bàyyi yi jaamur yi ñuy xeexal bàyyi suñuy baay wax dëgg yàlla tey ji jii imagine oustaz xam nga tey ma di Diop moo ci siiw mais ñun man xam naa koo xam ne ba léegi ma nga tëdd fa mu tëdd mhm. mais fii xaw euh, Grand Médine mhm. ay nit ñoo ko fekk biir këram dóor ko dóor yu métti te boo demee sax deful dara ndax lan ndax gis nañ la fenn ndax foog nañ la fenn loolu lépp ngir lan ngir bëgg a folle ngir bëgg fal te ki ngay folle ak di fal bu faloo moom ak ay mbokkam ñooy jekk d' accord dinañ liggéey réew mi dana dem ay côté yi ñu taxawal réew mi mais dañu bëgg ñun ndaw ñi nga xam ne ay néegi gi doole lañu suñu yaay yi suñu baay yi suñu famille suñu soxna ñëpp am lu ñu yaakaar si ñun nga la waay nañu jël suñu carte d'identité ko vérifier ndax suñu tur mi ngi si liste bi bu voté geeki ngi bu voté geeki ngi dem voté ji waaye bañ di def loo xam ne ndax am na loo xam ne nag ku ko def bala la ko fekk wax dëgg yàlla am nga si part de responsabilité mhm. ndax nag ñoom ñi nga xam ne dañoo falu ba léegi jamono yu jiituyee ba tey ñu doon falu ñoom ñooy falu ñu nekk ci instance yi di gérer ñoom ñooy gérer bu ñu fi jógee ñeneen ñi ñëwaat ci ñoom la ñuy jógee kon ñun ñi nga xam ne ay baadoolo lañu suñu loxo jotul gannaaw nañu xam suñu bopp def la ñu war a def mhm. oustaz loolu laa beneen bi may jeexalee nag mooy sëy yàlla bi muy boolee ñaari ñaari denkante maanaam góor ak jigéen. li si ëpp solo bàyyee ko mère Thiamal ba jeexaleel ci kees googu ñu wax ne dañu cee def xaalis. waaw kees gi ñu jëf euh, xaalis loolu oustaz ba seex seen mi ngi wax ne. waaw waaw mooy wàllu wàllu wàllu euh, maanaam takkadeer yi ñuy yi ñuy jiiñ ci wàllu wàllu ger oustaz loolu lu mat a la amul tax mu mat a euh, dañ may nettali benn genre xëy na léeb la ndax dëgg la benn policier dafa ñëw di vérifier benn taximaan bi mu ko vérifié taximan bi nekk si maanaam légal li mu ko laaj lépp mu jox ko mu ne ko demal am nga sens. sax xoolal loolu maanaam taximan bi lu mu ko mu jox ko léppam normal mu ne ko demal am nga sens kon kooku bi muy ñëw buggul woon fekk taximan bi mu nekk ci ci ci ci yoon bi war a nekk ngir rek am lu lu war a mën a jëlee si moom. déedéet nekkul ne ñoom ñëpp ñoom ñooy ñoom ñooy jëfandikoo ger am na si ñoom ñu am dignité am na si ñoom ñu. te ñooñu mooy ñi fees kees googu moom du ñu ci tali bi déedéet waaye ña ca gannaaw tali mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo leen di seefu te loolu euh, oustaz nekk na mbir moo xam ne luy jafe saafara lay doon luy jafe luy jafe liggéeyante lay doon mbir la moo xam ne nag lu mat a tiit la ndax bu ñu demee ba ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jubal ñoom ñoo war a jaarale yoon bu leen di jiiñ wala ñi leen di jàpp ci yi ni loolu mbir la moo xam ne du du du du dal xel dara oustaz maxtaan d'accord jërëjëf Oustaz Birame Bassine ñu sant ko gërëm ko mère Thiama balaa maa ñëw ci Seexuna kër yëgle kaay yaa nga ak salaamaaleykum maaleykum salaam Oustaz Matar maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar mm-hmm. di nuyu Oustaz di nuyu Birame di nuyu Seexuna naa di nuyu Rose damay dégg rek ngeen naa mère Thiama kër gi kër gi da ngeen wax fan laa dema bu leen tut kër gi fii kër la sama kër kër nee ma mère Thiama foo dema ma wax la ko kër Modou Lo kër Modou kër la gu ndaw ke Macky Sall laa demoon président Macky Sall ki yor réew mi ah bon nëbbu ma ko voilà demoon yendu fa benn deux heures laa fa jóge laaj leen ma ko de boo ngeen naa laajte na leen yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu da te ngeen def ñaan jàmm am ci réew mi loolu la bu ko biñ dikkee lañ lañ lay ah man foofu ka da ngay jékki-jékki ñun la war ngaa dem am de loolu waa demaaleel nga nu est que moom ngeen àndal ma ma demaaleel a foofu ku ku mu ànd rek ka fay dem ah yéen ñi nekk fii naan réew mi na tàkkal rek boo bëggee dem nga dem boo bëggee dem di nga dem foofu terewuñ ko kenn kenn moomu ko. waaw loolu sa dem gi moom bind nañ ko ci journal yi waxal lañ. bind ma wax ma buñ ko a ma bind ko de kenn du ma cattu laay bañ ko ma cattu sama mbokk yi naan dem naa ca pale ba ñëw yéen ngi commencé ma cattu ma ana million yi ku fa ñu wut maa ngi dégg opposition naan hmm. allah accu lañ leen defante jàmmaarloo les pourquoi jàmmaarloo ñun réew mi fi ñu toll nii dafa stable ñu xeex talu ñu xuloo mhm. man li fi amoon ci 2000 ba ñuy taal ay puna li Oustaz Bira wax léegi ku ci faatu du Diop mhm. fu mu dikk tey nee naa leen ay élection Mamadou Diop moo gën a siiw moo gën a siiw waaw xam nga gaañu ne mais xam nga moom la ñu wane chaque année ñuy wane ay ay naa moom la nit ñi gën a xam mhm. loolu ku su njabootam na ma yàlla baal ah léegi dama ni xale yi nga xam ne dañuy dem di ànd ak ay parti opposition di xeex di lakk taal ay lakkee kuñ ci jàpp di la dóor ay ay fiil balaa sa waajur di ñëw fekk làpp nañ la ku ci faatu dañ lay dem jaale defal la benn hommage sa yaay moo ñàkk te sa dund moo na am njëriñ man je suis contre xale buy ànd ak ay ay ay parti opposition di dem ay grève loolu moom dafa baaxul ñu ngi wax nañ leen jaamaarloo ñoom nañ génn ñu dem a woo benn doomu jàmbur mais fitna ji yemul ci parti opposition même càmbar non xam nga waa opposition ñoo ñu war euh, dañuy dajaloo rek xeexoo ci seen biir gisees na ko waaye ñoom woowuñu benn yooyu yëpp day dugg ci biir violence waaw seen biir la mais dama ne niñ ay ala accu defante jot na gis nga am réew kenn du ci yee fitna man même budul dara sax man dama ragal fitna ci réew ndax dañ naan doo xam fu mu yem di sa rakk sa doom mun na faa romb ñu yóbbaale ko ñu ne dafaa romboon fekk deful dara sa rakk mën na faa romb ñu yóbbaale ko bu la tëjee ci kaso bi bala ñu lay juge di la génne fekk sonn nga man foofu laay waxee man dama ragal affaire fitna nga ma policier ragal de man honnêteté ni rek laa su ma gisee man nee laay jàll du ma moo tax réew daal dafa war te defante jotagul defante xam nga fan la ca urne nga dem voter ki la neex mu jeex mais xeex loolu du du affaire bi nañ leen bàyyi affaire fitna kii tam nekk Medina ñu ne dafa màtt euh, waa yàlla borom këram ba fa ba mu xaw a nekk hôpital loolu moom dafa xaw a doy waar ndax nee na dafa ñëw ni ko damaa soxla sama bopp xam nga Oustaz Makhtar parfois dañ naan jigéen day tere boppam jëkkëram muy ni histoire léegi ki soxla boppam joxoo ko ko loo am jëla fu mu koy wute ji day dem jaaloo ji loo def ba sonn ba moo defan teg sa jabar kenn du yéen tëggale déet yaay loolu loolu loolu mën naa sonn mën na sonn man la xoola dama ne mën na feebar mën na ñàkk am xam nga jigéen bu boddoo téye sëram ñu naan dafa tere boppam jëkkëram yaa ngi dégg feu noir dafa tere boppam jëkkëram ba jëkkëram door na ko def na ko nii yow sa jëkkër ñu na sa soxna sa soxna ñëw yow nga ne ngay damaa sonn lan nga def ci biti ba sonn da ko koy leeralal mu xam ko waaye tëdd damaa sonn tey mën naa noppalu ëllëg mais boo ko boo ko defee loolu ëllëg ak gannaaw ëllëg yëpp waaw moom bu yàqee loolu fan la jëm sax waaw d'accord ah, ah, jërëjëf <laughs> ñu sant ko baax a baax gërëm ko Seexuna salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ziar la bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar. bisimilah. Uh-huh. di wax onge bi la xam ne incha allah bisimilah rahmaani di kontaan beneen yoon ci teewaat émission bu mag bii di ndénkaane. di kontaan uh, ci bokk bi ma bokk uh, plateau bi yéen ñi nga xam te mu laa tam bokkal. Uh-huh. aussi di dalal jàmm xam nga docteur Rose Warni. bon par rapport ak uh, revue de presse bi li ma ciy wax. fi maire Thiam njëkkee rek foofu laay kiiwee. parce que dafa woote jàmm pour man réew pour mu am jàmm pour mu am stabilité ñi koy diriger ñoom ñooy indi jàmm ci réew mi. xam nga dafa wax benn wax man dama gëm ni que ni ñi nga xamante ni tey dañu dee ci ay combat ñu dee ci seen njaboot perte ñu parce que gis nga réew yu mag yi dem yëpp ñi dee ci réew yu mag yi dem yëpp tey li fa nekk njëriñ tey ñu ko xeexoon dee nañ te pourtant dañ ko xeex pour génération future bi ñëw ñun africain ñun ñoo am benn habitude ñun lu ñuy jëriñoo rek la ñuy xeex ñun lu ñu xeex pour génération future bi nga xam ne moom mooy ñëw gis nga tey réew moo gis mu am stabilité fekk ñi nga xam te ne ñoom ñoo koy diriger ñu ngi doxal yoon nootuñu nit nit ñi sonn ñu pauvreté bi day wul noonu insécurité jaay doole amul tant que loolu mu ngi am moo ko nga moo amoon muy la monarchie la bourgeoisie ak xam nga classe mm-hmm. ne nit ñi dañu nekkoon ci suuf ñi suuf xiif sonn bourgeois yi ak monarque yi ñoom kese ñoom ñoo yor détenir bi ñu demee ba loolu noonu peuple bi révolté bi mu révolté li am am tey bu ñu jàpp ne bu ñu fàtte bu ñu jàpp ne que ne loolu mënul am si suñu réew yi tey suñu xoolee li am France tey ak les gilets euh, tey war nga na yeewaat képp koo xamante rek njiit nga ngay njiite te bëgg jàmm hmm. parce que tey population bi suñu demee ba nga xamante tey gisuñu li nga xamante moom lañ doon xaar ci leen nga xamante hmm. tey dafay indi ay dafay indi ay révolte te loolu baaxul ci réew te loolu lu ko mën indi mooy que ñi koy diriger loolu benn ak ñeneen ñi nga xam ne surtout tey ñi may woo ci lii mooy que waa conseil constitutionnel parce que tey tay gis nañ ci jamono ci jamono yu bari ak ci réew yu bari ci aduna ci moment élection la yu bari di amé ci yu bari nga xam te ne dafay am ay nit yu bari dé ci té likoy koy waral la majeure partie décision yi da fay jóge ci wa conseil constitutionnel. té tay mu nek ay nit yo xamanteni tay bu ñuy wax séparation de pouvoir tay dañ ko wara woné parce que tay pour man juge nga xamanteni te ñoom ñoo nek conseil constitutionnel ay nit lañ yo xamanteni tay dañu wara won Sénégalais yi que ne tey place biñ tok mérité nañ ko. c'est encore parce que loolu c'est une chose parce que tey gis nga nit ku nekk da nga boo xam te ne vis-à-vis ak yow sa bopp vis à ak nit ñi ak vis suñu borom te tey kenn ku nekk ci ñun sénégalais yi da nga a jëmmal loolu da ko war a taxawee da ko war a doxee su fekkee ne bëgg nañ Sénégal dem loolu c'est une chose beneen bi nga xamante ni euh, dañu boycotté assemblée est-ce que moom loolu mooy seen rôle parce que tey ñoom dañu am benn dañu am ñuy représenté peuple la ñuy représenté peuple bi yónni leen peuple fan la leen yónni pour mu taxaw leen ci biir assemblée kon taxaw boobu noonu dafa war a mat dañuy xeex dañ ko war a xeex ci biir man gëwuma nekk ci biir di xeex man li pour man ki li ngay xeex ci biir ngay nekk rek. maanaam mooy mooy bàyyi assemblée dem di campagne. waaw man pour man gëm-gëm bi ma am mooy que tey man pour man dafa dafa des ñi nga xam te ne ñoom la ñuy fal pour ñu représenté ñu tey ñi ñuy fal war nañ ko seetaat bu baax beneen bi muy par euh, par rapport ak euh, la corruption bi nga xam ne moom la ñuy wax ci euh, gendarmerie xam nga corruption dafa nekk affaire bu doy waar parce que non non seulement corruption dafa nekk mbir moo xamante ni dafay nasaxal koom-koomu réew mi maanaam dafay rey économie parce que loo xamante ni dafa waroon dem ci keesu état dem ci ay nit lay lay doon lay lay doon te soo seetloo tey nga nga xam ne moom moo am ci Sénégal du ci gendarmerie kese tey la corruption elle est flagrante sooy dox ci mbedd mi arrêt car yi boo gisee si mbedd tout le temps boo gisee yaa ngi gis nit ñi nga rakkate chauffeur yi ainsi c' est flagrant Sénégalais autorité du ñu ne gisuñu ko gis nañ ko dañ ci gëmm ce qui veut dire que amul benn volonté derrière loolu noonu qu'on se dise la vérité du question de loo xamante ni xam nga lu sax la ñuy wax mais lu ne fànk kenn du ko jeex yaa ngi comprendre tey c'est c'est des choses yoo xam ne dafa flagrant mu ngi bopp ci bopp ko ñi mu ngi ci biir bureau yi mu ngi fenn fenn te loolu dafa nekk loo xam te ne tey suñu réew yi dañ ko war a ray dañ war a rayante mm-hmm. parce ñun dañu nekk ci muy réew jullit mm-hmm. réew moo xam te ne on se dit musulman mu nekk réew si alxuraan ci ay saar yu bëri ci guerre mm-hmm. mu ne safara ñeex moom mu ngi rëbb ñi nga xamante ne dañuy guerre ak ñi nga xamante ne dañ leen di guerre te tey Sénégal ñaata Sénégal ñoo mës a mën a waat yëkkati seen loxo ne que ni suñu ger wala musuñu leen ger mm. loolu c'est des choses yoo xam ne bu ñuy woote aussi jullit war nañ mën a xoolaat suñu comportement par rapport yooyu mais temps moom bi mu mujjee par rapport ak koy bàyyil ma parce que xam naa ne su ma joxe xale jigéen duñu ma ko jot ci mbedd <laughs> xam nga d'accord jërëjëf jërëjëf seexu naa euh, euh, ñu bàyyi la euh, gannaaw boo nuyoo këru yëglekaay lan nga ci commentaire ci li nga fi dégg Euh, sama commentaire rek mooy li ma fi dégg rek. Mhm. wax ngeen ko ba pare. Mhm. xanaa di ñaan rek euh, jàmm wàcc Sénégal. Mhm. Euh, si élection yi yàlla defal ñu ci jàmm. vraiment comme ni ko maire. Thiam Thiam waxee ku war a dem vote ji nga dem vote ci jàmm ak salaam. ku war a yóbbu ndam li tam dinañ ko xam dina ko mérité. Mhm. waaye nañ ñu dimbale rek wax dëgg yàlla euh, jàmm wàcc fii Sénégal. Mhm. ndax loolu lañ soxla. dëgg la yow mi yëngatu ci wàll gi ñuy waxtaanee moom xam naa li journal bi mujjee bind ci madame Kane. Mhm. ndax kaa yu mel noonu da ngeen koy faral di gis. kaa yu mel noonu nag boo leen seetloo fan yi bëri na Sénégal. te violence conjugale yi moom wax dëgg yàlla wax nañ ci waxaat ci euh, vraiment ñu koy. vraiment ñu rafetlu wuñ ko dara ndax euh, laaj na euh, quand même euh, ñu def sensibilisation bu baax au niveau des foyers. Mhm. parce que li ñu fi gis famille dafa nekk comme une répétition bëri na war nañ ci jóg waxtaan ci bu baax ba mun ko éviter à l'avenir mhm. ñaawlu nañ ko torop wax dëgg yàlla d'accord jërëjëf euh, docteur ñu sant ko gërëm ko jërëjëf euh, journal yi Modou Mbacke mi ñu ko yëral waaye jërë ngeen jëf ci commentaire yi macha allah dañu dem ànd ak waa régi rek seetaan benn élément dellusiwaat incha allah ci sunu thème régi élément. asalaamaaleykum. xam naa da ngeen a dugg ci thème boo xam ne day a ah, wax dëgg yàlla de thème la boo xam ne yëngal na kër yi nekk na thème boo xam ne itam laal ngeen lu ay góom yu méttee méttee métti ci biir kër yi ndax man day am naa lu ma dund ci lu mel noonu. doonte nag sant naa ko yàlla bu baax jullee ko seydu Seydina Mohamed ndax jullit moom lu ko dal lu nekk da koy seet da koy seeti ci ëttu Seydina Mohamed maam jërë ngeen jëf waa régie xam naa danañ del siwaat ci loolu incha allah mais dañuy dugg rek ci sunu tem tey ndax tey lañ koy tënk uh-huh. te yëkkati woon nañ ko semaine bii passé muy thème boo xam ne lu yaatoo yaatu la jafe-jafe gi nga xam ne mu ngi ci biir couple yi ci ñi nga xam ni dañuy euh, sëy te yàlla dogalul euh, ñu am doom wala mu jafe euh, tey nag mooy alxames tey la ñuy tënk li weesu yëpp bari na ay mbir yu fi jaar yuñ fi tudd danañ ci dellusiwaat ci yenn yenn ak yuñ ci dolli waaye docteur Rose xam-xamam dafa màcc ci wàll gi ñuy waxtaanee tey ñu dalal ko fi en tant que kuy yëngatu ci wàll googu noonu le euh, lii nuy waxtaanee lan la ñu ciy baaxee euh, docteur Rose ñi ngi waxtaan ci thème bi comme ni nga ko xamee jigéen ñi nga xam ne ñi ngi sëy ak i góor te am jafe-jafe pour am euh, doom muy feebar bu leen di gaar lu mel noonu yéen en tant que ñu ci yëngatu nan ngeen ko gisee ci société bi mm-hmm. ndax dafa gën a bari wala mu ngi wàññeeku. ak lan mooy li ci gën a fës. ci ci ci société bi ñu koy dund ci góor ak jigéen yi. jërëjëf Oustaz Makhtar euh, thème bi ngeen jël moom thème bu faral di gis la fii Sénégal waaye waxtaan nañ ci waxtaanaat ci ndax euh, lii di nga xam ne mooy jaasir nañ koy wax. jaasir jaasir jaasir. Euh, na ci société bi te.

loolu dal leen dama naan balaa ñuy def dara ci jigéen bi góor bi d'abord góor bi la ñuy njëkk a bu paree ñu teg ko fële dem ak jigéen bi parce que booy seetlu toujours dañu naan jigéen bi la rek góor bi taxaw fële. seen mhm. gis ngeen ne ci góor yi lay ëppee. ah mais non mun na mun na ëppee ci jigéen bi comme ci góor mais mënuñu mhm. taxaw rek mais jigéen bi la mhm. parce que ñaar a koy joxe. donc souvent aussi dañuy daw daw daw dem ne jugi dugg fii ci mara bu dem fi ñun on a nos balaa ñuy dem ci ay marabu wala di dem fenn dëgg la parce que suñu réalité la mhm. nañ explorer ñaar ñi ba pare parce que souvent góor yi yéen da di taxaw fu lay làqatu wala ne du ngeen nangu def dara jigéen bi la loolu c'est waaw loolu loolu nag da ngeen ci war a wax bu baax parce que bu amee dañu war a njëkk a xool góor bi bu amul dara ñu teg ko fële soog a seet jigéen bi bu ñu seetee ñaar yëpp amul dara ah on a nos réalités. Mhm. ñu neexee dem seetee suñu sëriñ wala yooyu waaye souvent sax stress bi rek. Mhm. ak ñàkk am kii bi ak pression familiale bi. Mhm. mun na perturber lu bëri loo xam ne normaloon na. loolu tamit il faut ñu dugg ci ci ci domaine boobu. di discuter. d'accord léegi dafa am ñu ñu laajte benn laaj ne dañuy dégg ne infection day tax jigéen pour mu am doom jafe ndax loolu mën nga ko. confirmer bien sûr li tax ñu ci bi bu ñu bi infection yooyu ci la bokk te am genre infection yoo xam bu ci bi day bi tam problème parce que infection tax spermatozoïde li du am passage pour jaar parce que souvent day dem infecté par exemple liquide boobu ñuy wax glaire te muy tax spermatozoïde mën a dugg parce que booy seetlu euh, pour mu am fécondation il faut que euh, spermatozoïde bobo gâte euh, voie génitale dem ba ci trompe manam mhm. ci ci côté ci annexe mhm. pour dem fekk fofu ovule bi nen bi mhm. pour mu am fécondation mais fim wara war a jaar yëpp bu amé galancor bu amé infection wala bu amé du fa mëna a jaar bu faté du fa mëna jaar donc lolu ci infection wa dana ko jox dana kon bu ñu tuddee infection war na ñoo xam lan moo koy joxe lan mooy joxe infection balaa ñoo jàll ci. infection am na infection yu bëri yoo xam ne ci jigéen bi la moom ci boppam mun na jàpp benn doomu jàngoro am na infection yoo xam ne ki néegu sëy lañ koy jëlee te souvent yu mel noonu sax moo mun a indi ay gàllankoor ëllëg donc euh, infection mën na jóge ci wàll boobu. Mhm. Mhm. waaw infection mën na joxe loolu noonu. Euh, te bari na bari na ay façon yoo xam ne moom moo koy moom moo koy waral. bari na infection am na infection yoo xam ne euh, vraiment nekkul lu grave. Mhm. am na infection yoo xam ne. Mhm. Euh, mun na grave ba non seulement. Mhm. mun na tere. ëllëg jigéen bi am doom parce que dina fàtte ay bëti ci mbiru kaayam. mais am na infection yoo xam ne tey moo nekk di indi li nga xam ne mooy cancer yi ñuy dégg. temps yëpp ñu ngi koy wax parce que am na doomu jàngoro yi ñuy wax euh, papillomavirus. Mm-hmm. yoo xam ne ci infection la bokk. Mm-hmm. moom non seulement mun na indi problème ci wàllu am jo doom mm-hmm. waaye mun na indi problème bu gën grave muy góom bi nga xam ne moom lay def ci butitu njurukaay. te fu am góom wala fu am infection foofu doom daf fay jafe. waaye góom yooyu doomu jàngoro boobu mun a joxe am na ci yoo xam ne ëllëg mun na tax jigéen bi am cancer. donc infection lu doy waar la. lu doy waar la ndax jigéen da kay am infection wala góor mën na ko am. góor mën na ko am mais euh, ci jigéen lañ koy lay gën a fësee. Mm-hmm. góor mën na am tamit infection. Mm-hmm. mais du feeñ torop. Mm-hmm. mais ci jigéen lay gën a fësee infection ndax ci jigéen lay gisee mu am ay perte blanche ak. ci jigéen daal la gën a fësee. yan xeetu jigéen ngeen di gis ne ñaareel moo koy gën a am bu mën a xeetu jigéen maanaam ci ñiy. toppatoo seen bopp wala ñu dul toppatoo seen bopp ñi nemmeeku ñu mel ni yéen wala ñu leen dul nemmeeku. ci ñan ngeen di seet ne bu ngeen di. bari na ñoo xam ne euh, wax dëgg yàlla duñ dem seeti seen docteur. bu ñuy wax toujours man suma émission bu nekk dama ne nekk jigéen dafa war di seeti docteur. mais souvent am na ñu bëri ñoo xam ne duñu am consultation. loolu dina koy indi négligence boobu. Mhm. dina koy indi waaye tamit buñ ne jigéen bu négligé boppam rek wala jigéen bu setul. jigen yi nga xamne dañu bëgg sétay bu ëpp tamit mun nañu dem ba indi infection seen bopp ndax di raxas di raxas di raxas jigen ci biiram dafa am benn écosystème boo xam ne mooy tax yépp nekk équilibre normal bu demee nag di raxas di raxas day rompre équilibre boobu indi ay indi boppam infection donc sétay bu ëpp mën na indi infection sétay bu ëpp waaw parce que moo tax ñuy tere jigéen ñi ñuy raxas seen biir lu bëri. tout le temps parce que ci biir jigéen mooy biiru jigéen mooy raxas boppam. mooy créer un équilibre ba nga xam ne du am déséquilibre bu mun a indi infection. parce que am na genre infection yoo xam ne day xasan xasan xasan bu métti. mel ni lu am soow soow perte yu mel ni soow loolu. setaay bu ëpp mooy indi loolu ñuy wax candidat. candidat albicans wala yeneen infection parce que day déséquilibrer écosystème bi nekk ci biir. donc jigéen dañ koy. tere souvent muy def injection yu bëri yeeg raxas yu bëri. kon bu ñu consulté jigéen gis ne li ko tee am doom infection yooyu la bu ñu ko fajee mën na am yaakaar ba mu. waaw bien sûr mais infection yooyu dafa mun a nekk ci étape yu bari dama ne mun na nekk ci vagin bi. Mhm. wala mu nekk ci kol bi parce que foofu tam spermatozoïde étape yu bëri la wala jaar bu ñëwee ba ci col bi mu am infection day tax liquide boobu dootul. Euh, nekk loo xam ne lu transparent la day infecté. Mhm. mel ni lu opaque su ko defee day tere spermatozoïde yi mu dugg. Mhm. bu demee tamit ci yeneen étapes yi yëpp ba ci trompe yi euh, war a jàll mënut a jàll parce que trompe bi dafa bouché. Mhm. loolu danañ koy faral di gis lu bari nag. parce que jigéen yu bëri seen euh, infection yu yàgg yi ngi négligé day dem ba fàtt batitu njurukaay bi su ko defee do euh, spermatozoïde du mën a jàll. pour dem fécondé. donc da ngeen ci am solution. waaw. ام نتمت اوسي بروبليم ريغلي مانام جسفوت يومنا تخ نيمو ورا دفري اينن دو جاريون دونك لول يب تي كوزي لا تي كوزي nga xamne mun na dal jigen waye كوز masculine مانام تي غور امنا بروبليم تي كاليتي ndokh بي باسكو غور مون نا بيرفورمان فيك ndokh بي باخ ndokh بي امنا اي انو دونك لول يب مان دما نان امي بن كوب bu ñëw dañu war a njëkk a explorer góor bi. Mhm. teg ko de côté. Mhm. ñu ne kii moom du problème ñu soog a seet jigéen bi. Mhm. problème yu jabar yu bëri yi tamit am na. parce que infection yi. day nekk ci seen biir. souvent dañuy am problème boobu. bu ñu jigéen bi sa ji war na jël lii jëkkër bi euh, am problème ndax day dem fële ñu ne ko kooku tam ne ko man aw ma dara. du ma jël dara du ma nangu jël. loolu tam problème bu bëri mm. lay indi parce que. da ngay faj kenn mm. après mu dem euh, keneen ki fajuwul. c'est day tourné waat mu wàllaat ko ainsi de suite donc loolu aussi dina indi ay gàllankoor yu bëri ci ci problème ci problème boobu noonu d'accord léegi euh, cas boobu nga xam ne moom moo moom moo fees noonu infection mm-hmm. euh, ngeen gis ko beneen bi nga tudd léegi nag muy muy góor gi nga xam ne mm. dafa dafa ndoxam baaxul mm-hmm. lolit it yéen yan ngeen ci am carrément ben ndox mi doyul wala wala njaani amuñu doole. am ngeen ci pexé ci kër docteur. Euh, problème bobu niñ koy gérer dañ koy gérer en équipe parce que man personnellement en tant que gynéco bu ma xasee ba détecter dara ci goor bi damay oo suma collègue urologue wala andrologue ma confier ko ko des ak jigéen bi noonu lay faral di def parce que moom tam dafa war a am exploration yu bëri wala ay opération yu ñu ko war a defal pour mu mun a normalaat am na ci nag malheureusement yoo xam ne moom du mënaati am doom parce que amul solution mm-hmm. su ko defee bu boobaa nag bu dee ci góor bi wala ci jigéen bi dañuy wax souvent ñu dem dans le domaine de la procréation mm-hmm. in vitro maanaam bébé éprouvette yooyu ngeen di dégg mm-hmm. mais loolu bon dafa xaw a doy waar parce que c'est pas à la portée de nos bourses euh, dafa cher ba pare te toujours du du am parfois dina am résultat parfois mu bañ am résultat. Hmm. nan nga ñu mën a euh, firilee ñi sëy toog lu ma dix ans soog di am doom te même couple bi la ñoo dëkk. sànq maa ngi wax benn euh, wax bu am solo parce que souvent bu couple nekkee donc euh, toog at wala ñaaret ñu commencé wax ne dañoo jasi wala yooyu. Hmm. mais souvent aussi day am pression familiale boo xam ne dañuy sonnal jigéen bi ba nga xam ne moom ci boppam day am perturbation parce que xam nga euh, jigéen buy gis mbaax ak bu cycle am boobu dafa am loo xam ne moo koy réguler ci bopp bi la nekk donc euh, loolu mooy tax chaque mois muy réguler production nen yi ak yooyu donc <coughs> commande bi yëpp ci bopp bi la nekk donc souvent jigéen mun na bañ a am dara mais pression bi ak stress bi day tax mu perturber ba nga xam ne dina toog ay at ñu def lu ne duñ gis souvent dañuy naan ko demal vacances wala demal nga noppalu ko day jékki-jékki rek affaire bi bett ko mhm. fekk amul amul mooy li ñuy faral kii jigéen ju ne damaa ba samay règle ñëw te jotul voilà stress bi day indi lu bëri mhm. stress bi ngay gis muy indi ay problème ci yeneen domaine yu nekk day indi tam problème ci loolu ci loolu d'accord parce que mun na bloqué mhm. euh, cycle am wala mu bloqué daal ni mu war a doxale ba am ay ay nen d'accord di fàttali mbokk yi seetaan tey docteur Rose lañ fi dalal mu nekk gynéco xam-xamam màcc ci lii ñuy waxtaanee ci kanam dinañ leen ubbil téléphone yi tey dañu bëgg ku am looy laaj lu jëm ci wàll googu noonu le nga woote direct laaj ko ko xam-xamam màcc na ci mu baaxee ko askan wi ndax euh, am na loo xam ne tey média indi na ko mu nekk njëriñ mooy ki nga waroon dem fekki ko jënd tike pour laaj ko yenn yi mu wax la ca tey ubbi nañ antenne yi ci rajo yi dalal leen ci télé yi comme nii ñoom ñu laabiir ñëw toog nga laaj leen loolu noonu li macha allah loolu lu am solo la su ko defee tey it waa palaato bi xam naa ay questionnaire la ñuy doon uh-huh. euh, ci ci ci yiñ fi dégg dañuy bàyyi oustaz Birama bu fekkee am nga looy laaj euh, docteur euh, nga laaj ko ko incha allah hmm. mu tontu ci waaw oustaz Makhtar jërëjëf di jaajëfal docteur wax dëgg yàlla di santaat yàlla bu baax a baax ab bu baatu seexu naa bi auzu billahi mina hmm. Hmm. di wax ne bala ñuy laaj rek toujours te Oustaz Mouhamed daf ciy def façon bu am solo. di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk taw feexam euh, doom xëy na genre fleur la buy feeñ ci jardin wu sëy mu nekk lu neex ci xol takk ci xol képp kuy sëy da nga ko bëgg. mais docteur est-ce que jàpp leen ne nit ñi d'abord ñi gën leen a conscientiser ñi xam ne ña couple bi man toujours li may gën a ñor ci couple mooy ndax doom lu yàllay def la ndax yàlla nee na am na ñoo xam ne dinaa leen may doom yu jigéen. am na ñoo xam ne dinaa leen may doom yu góor am na ñoo xam ne dama leen defal mélange ñu am doom yu góor ak doom yu jigéen. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne experts yi gën a aay a aay bu ñu ñëwee mënuñu am doom parce que man maa leen def defaluma leen sax appareil bu tax ñu mën am doom. ñoo xam ne mënuñu am doom parce que am na sax ñoo xam ne duñ sax gis duñ sax gis règle. parce que mm-hmm. yàlla loolu leen loolu leen programmé. Mm-hmm. mais li ma bëgg a wax mooy nit ki te yéen xam ngeen ne feebar. quatre-vingt-quinze pour cent li koy faj wala boog bu ma ëppalee ba ëppal kon quatre-vingt pour cent li koy faj mi ngi aju si bopp nit maanaam wax ak moom ba mu xam ne lii lu lu c'est passager dafay jàll. wala boog même bu dul jàllee itam dafa war a xam ne lii moom moo ma ànd. Mm-hmm. amu leen ndax nu ngeen di waxtaanee ak nit ñi maanaam defal leen genre thérapie ba ñoom ñaar góor gi mën a mën a mën a jigéen ji même bu nu amul doom sax maanaam waxtaan boobu est-ce seen seen seen i seen i seen i malade ñi ngeen di gën di leen conscientiser nga xam ne sëy doom. lu ci yàlla di dugal la. mais nekkul woon lu nekkul lu obligatoire ci biir sëy bi. Mhm. parce que li nga wax sànq amul lu ñu si mën a yokk. Mhm. Euh, euh, euh, baat yi ngay baat yi ngay utiliser. même bu ñu ko déggul ci tubaab danañ ko dégg ci wàllu da ci wàllu daara ndax mhm. ku nekk xam na ne li ñoo tuddee saa'il manawi moom ngeen di wax liquide de sperme bokkul ak ay xayawaanat al manawiya maanaam manaam liquide bi bokkul bokkul ak wallax ñaan bi nga xam ne moom mooy tax doom di mën a sosu te jigéen dafa am lu ko yàlla programme mhm. bi nga xam ne fekkoon kii bi bi nga xam ne cycle bi am na ba pare. Mhm. liy jugee si moom nen yiy jugee jaar si xanaat falop ngeen di mhm. wax xaw ma lan ba tuddee ko falop noonu. lu ngay jàngee si daara ji. loolu noonu di jugee si góor. am na fu mu war a daje ak moom. léegi nag mu ngi mel ne tey ni ma koy exemple Oustaz Makhtar picc buy tàgg. picc buy tàgg du tàgg si bànqaas bu fënax. du tàgg si ban bànqaas boo xam ne dafa am max ndax tàgg du fa mën a taxaw tàgg boobu la ñu tuddee si arab mooy attensis moom mooy fécondation mm-hmm. léegi jigéen bi nga xam ne dafa yore ay doomu jàngoro wala dafa yore dafa yore infection wala leneen dafay mel ni biiram dafay tàng biir bu tàng nag loo fa dugal loo xam ne degré ba mu nekk moo ko ëpp daf koy daf koy seeyal mu seey kon yooyu nekk na loo xam ne du jar bàyyi xel mais li mu bëgg a wax rek mooy te gën ma ñor mooy naka ngeen def ak seen ñi nga xam ne dañuy ñëw ci yéen ci wàllu xel ci wàllu waxtaan mm-hmm.

damay wax toujours communication dafa am solo communication day indi solution yu bari dama koy wax à chaque émission à chaque fois parce que dina indi dina régler genn wàll problème bi donc defe naa ne lu am solo la ñu waxtaan ak couple boobu te man loolu suma première démarche laay def convoquer ma sa jëkkër mu ñëw balaa ñuy def dara ma xamal ko ne doom ñaar ñoo koy def xamal ko ne moom dafa war a am démarche mu war a def

elle est encore vierge maanaam. te ëmb na waaw te ëmb na doo koy dégg. bu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. baax. parce que ndox bi rek ndox bi nga xam ne moo am walax njaan yi bu xasee ba jàll rek te amul dara lu ko tere jàll day dem fécondé jëkkër bi donc même ay flirt nga nekk ak xale boo xam ne musta sëy dañ koy dégg dégg nañ ko fi lu bëri yoon ne dafa ëmb. c'est vrai donc affaire yi taay yeeg yooyu amul solo. ndox bi moo am solo. ak fa muy jaar. am na tamit. fa muy jaar fattul am na fécondation fécondation nen bi war a ñëwaat ci butitu njurukaay bi mhm. butitu njurukaay bi am ay fibrome wala yooyu nga xam ne bu yegg see ba ci biir butitu njurukaay bi du mën a toog ndax amul place mu toog mhm. day wàcc donc am na cause yu bëri ay kyste ak yooyu yëpp yu bëri mën na indi li tax jigéen bi bañ a am bañ a am doom d'accord Mère mhm. soo amee euh, loo ci laajte Rose Wardini ñu ngi lay gën bu mu baax man dama gis xale dama gis benn phénomène bu am. Mm-hmm. dañuy wax ne xale jigéen ñi bu ñu leen takkee par exemple. Mm-hmm. ñu ne ñoom. Mm-hmm. du ñu gaaw am doom dañuy dem di jël ay pilule. wala ñu def euh, planning. pour rek euh, toppatoo seen jëkkër ba un certain temps. léegi après nag dañuy am problème. pour pour nag am doom. su ko defee ñu ne ñu ne yow yaa demoon def ay planning. te xamaguloo yow sa yaram. nu mu mel. Mhm. yow nga ñu lay waaj takk rek nga dem def planning. Mhm. pour régler sa mariage. Mhm. loolu loolu lu ci sante wax. waaw loolu mun na am muy jël pilule ba mu yàgg. en général bu ñu jëlee pilule lu yàgg. bu ñu arrêté pilule bi mun na am benn période boo xam ne duñ gisati règle day am ay perturbations yi ci nekk. mais euh, loolu buñ ko gëstoo rek mun nañ ko faj loolu du dara lu grave. parce que booy seetlu ci. contraception yi ñuy def yëpp yooyu yëpp c'est réversible maanaam boo ko arrêté normalement da nga war a mën a am doom mhm. benn rek moo ci mënul nekk mooy bu ñu euh, ëlbatee sa butit ci ñurukaay mhm. kooku opération kooku c'est définitive mënatuñ ci dara mais yeneen forme de contraception yëpp mhm. bu arrêté mun na am perturbation pendant un moment mais nekkul lu grave sauf que jigéen boobu doon jël contraception bi amoon na problème boo xam ne xamuñ ko loolu tamit mun na nekk mais bu dee li mu doon fagaroon li mu doon jël rek loolu mënut a indi problème. léegi waaw kañ léegi dëpp bu tudd njurukaay boobu. Oh. dañuy ni si boo accouché léegi rek lañ ko mën a dëpp wala après mu nga dem ñu dëpp. mun nañ ko def opération la heure boo bëggee ñëw ne damaa bëgg a ëlbati ñu ëlbati mm. waaye ëlbati boobu dafa am aussi aspect juridique boo xam ne mm-hmm. balaa ngay ëlbati foog nga laaj jëkkër bi waaw jëkkër bi waaw mu signé mm-hmm. surtout bu nee jigéen boo xam ne euh, nekkul mag torop bu dee mag moom am ay doom yu bëri mun nañ bañ a laaj affaire mais bu dee mm-hmm. koo xam ne war na mun a am doom encore te nekk euh, âge am soriwul torop il faut ñu signé loo ñaari parti yi bu ma la déggee wax nga ne mën nañoo mën nañoo fajaat bu dee problème mu kuy jël ay pilule laa ki xoox yooyu ba ñàkk ba ñàkk gone. Mhm. mais léeg dañuy gis ñoo xam ne. Mhm. jéem nañu ba sonn ñëw ci yéen. Mhm. gannaaw bu ñu jëlee woon loolu tamit mu të. loolu tamit ñooñu ko mën a firi mu jëloon loolu comme ni ma ni ma ko wax léegi mun ki ki koy jël mun na fekk mu am problème boo xam ne. xamuñ ko xamuñ ko woon rek jëm di ko jël. waaw mais bu dee pilule bi kese kese kese pilule bi mun ta indi problème boo xam ne waruñ ko mun faj. xëy na beneen problème bu rax ci biir te gisuñ ko woon ba muy jël pilule loolu la. problème boobu pilule bi mënu ko indi période bi mu koy jël. non pilule bi perturbation rek la mun a indi waaye mënut a indi problème boo xam ne day tax jigéen bi du mënati am doom parce que pilule bi contraception réversible. yu ah. ñu wax maanaam boo ko arrêté war nga mun a am doom. est-ce que loolu tamit waru leen cee kon yéen tamit comme communication mu gën a leer. ndax ñu bari dañuy jàmbat lu mel noonu. damaa jël pilule.

ñu expliquer leen bu baax mhm. bu ñu la nee am nga ni da nga war a toog mais am na ñoo xam ne parfois duñ jël seen temps di expliquer mhm. Mhm. man na ko bu ngeen da ngeen koy exiger bu leen ñëw tëdd rek ñu defal leen ni ngeen ngeen dem loolu vraiment communication mooy indi lu bari mais yooyu noonu contraception yi yooyu mënut indi problème boobu ah. waaw dafa am ñu ne am na ay façon tampon yoo xam ne dafa faral di jox jigéen ñi ay ay ay infection ay tampon hygiénique waaw am na ay tampon yoo xam ne bu fekkee ne dafa am dañ ci allergie mun nañ ci am allergie di xasana wala di kii moo tax ñuy wax tampon yi nañ ko jël na nekk hypoallergène bu mu indi Mhm. parce que am na ñoo xam ne dañuy dem jënd tampon à la pharmacie sax mhm. man sama benn ñees loolu def ko dañuy dem ba mu jigi dañuy dem ci marché jënd moom nga marché bi nga jënd popeline mhm. malikaani nga fóot ko mu koy def du ko def dara mais si bu defee yëfu tubaab yi rek mu am problème bi dem ci waaw mën na nekk ne ci am allergie comme ni ma la ah, wax kon allergie mooy allergie mën na ko am ah, mën mm, na indi infection d' accord comme ni ngeen ñuy laajee yéen ci ngeen bokk ci kanam incha allah nañ leen ubbil téléphone yi seexu naa. Mhm. gannaaw boo waxaatee auzu billaahi mina sheytaani rajiim. ñu bàyyi la. Euh, xanaa moo waxaat mhm. mhm. euh, beneen yoon pour àdduwaat ci thème bi thème bi nga xamante ni dafa nekk thème boo xamante ni thème d' actualité parce que thème la boo xamante ni am na kër yu bëri yoo xamante ni thème yii nii. ak ñi xam ne jafe-jafe yi lañ am moom moo yëngal kër ba indi si ay jafe-jafe moo kontaan nag bokk plateau bi ak docteur euh, Rose Wardini xam nga parce que vraiment xam-xamam màcc na ci ci loolu mais li may am naa question bu ko ci posé mais li may euh, njëkkee foofu rek mooy euh, d'abord sànq dafa wax que ni ci jigéen ñi il faut que ñu dem di xool yi ay gynéco mais man dama def benn constat fi au Sénégal mm. tey faju dafa nekk loo xam ne ni problème la Sénégal parce que mm. déjà benn problème d' accessibilité dafay am problème de proximité dafay am parce tey su ñu wax faju soo xoolee c' sur dans les grandes villes la gën a accessible ci la proximité bi gën a amee tey am na ñoo xamante ni ñu ngi nekk si milieu rural bi ainsi pour ñu gis gynécologue sax problème la te tey soo seetloo problème yii nii mu ngi gën a bëree sax si biir milieu yooyu noonu parce que tey ñooñu non seulement fa la gën a bëree mais aussi gis ñu benn gynécologue boo xamante tey politique de santé yi nga xamante ne tey suñu réew yi ak à le ministère de la santé tey dañu war a jëm vers loolu mais ak association yi nga xamante ne dafa nekk ci biir Sénégal di yëngu ci yenn mm. ci yenn euh, branche euh, yi mais par rapport ak euh, li la bëgg a laaj mooy que première laaj bi mooy laaj bi ma la bëgg a laaj mooy que tey fi nga xamante fa lañ toll ci Sénégal mm-hmm. nga xamante ñun dañu dem ba benn instant boo xam te ni dañu dugg ci yeneen mbir yoo xam te ni bokkuloon ak parce que bu nekk dañ daan gis à l'âge de 17 ans ñu si am seen taaw yi. Mhm. te tey ñu wax que ni mariage précoce. Mhm. Mhm. tey est-ce que yéex a aussi. du pro du cause ci infertilité. wala boog ndax mën na nekk cause ci infertilité loolu benn la beneen bi mooy que dafa am ay solution yoo xam te ne dafa am dans le monde benn bi ci benn bi ci jiitu mooy stimulation des ovules yaa un comprendre lan mooy tax jigéen bi. par exemple muy dem ci ci solution boobu noonu lan mooy waral muy dem ci solution boobu noonu beneen bi mooy euh, insémination intra-utérine lan mooy cause yi lan mooy tax jigéen bi war a yegg si wala jigéen bi si ban moment lay toll. ñu war ko defal euh, intervention ak tey intervention moom moo tey euh, insémination. Ah. in vitro mm-hmm. par exemple parce que tey àdduna toll na foofu noonu mm-hmm. tey est-ce que yooyu noonu yëpp tey mm-hmm. ak ban instant la jigéen bi di toll mu nekk foo xamante ne tey chirurgie daf ci am loxo parce que tey am na foo xam ne jigéen daf fay toll il faut que chirurgie am ci yan étape ñeenti euh, solution yooyu noonu ci yan étape la jigéen di toll ba pare aussi est que tey plateau yooyu noonu est-ce que tey am na Sénégal ak bu fi amee est-ce que accessible na ci population bi ak coût yi naka léegi est que c'est waaw première question bi dafa am na ma rëcc mooy. Euh, yéex a sëy bi yéex a sëy bi. yéex a sëy bi non que jigéen mu ngi gis règle am war na mën a produire ay ovules. xëy na bu yéexee sëy parce que tey ñu ngi gis aussi ay mariage tardif. Mm-hmm. yu dem ay quarante cinq ans yooyu. Mm-hmm. yooyu mun na am problème parce que day dem ba nga xam ne capital ovocitaire bi maanaam capital nen bi mu am day wàññeeku bu baax. ba nga xam ne day nekk en période pré ménopause mun na indi ay perturbation wala ñàkk mun a def ovule loolu mun na ko indi mhm. bon euh, deuxième question bi mooy mooy euh, ci ban moment la maanaam jigéen ba présenté tey solution ma mooy euh, stimulation des ovules lan moo koy waral stimulation des ovules jigéen bi nga xam ne mu ngi ci néegu sëy nekk en période active mun nañ ci yegg si bu fekkee ne seetlu nañ ne jigéen bi réglam normalul amna ay ovaires comme syndrome bi ñuy wax le syndrome des ovaires polykystiques bi nga xam ne nen yi euh, ovaires yi day liggéey lu bëri ba développer ay kyste su boobaa ovulation bi mun na bañ a nekk ni mu waree bu boobaa on danañ def stimulation boobu pour mun a corriger dysfonctionnement boobu. est-ce que loolu c'est accessible fii ci Sénégal. bien sûr c'est à la mais attends ñun Sénégal dañu am ay compétences ah.

Euh, parfois les koy waral mooy par exemple euh, am problème ci est yi par exemple def nañ lu nekk mënul réussir uh-huh. mën nañ dem fonctionner nenam yi xam nga étape bi voilà, euh, fii wallax njaan yi war a jaar ba yegg ci ci tiers externe trompe mm-hmm. bu fekkee fofu dafa am ay obstacle def nañ def mënuñ mën nañ dem fonctionner nen bi jël liquide euh, boole ko ci tube ba mu nekk nen ñu jël nen bi inséminé ci jigéen bi mais tey est-ce que loolu yooyu ah. noonu technique yooyu noonu yëpp est-ce que c'est disponible c'est disponible techniquement c'est partout ci hôpital yi wala je veux dire xam nga tey hmm. Hmm. aussi est-ce que tey nekk am na disponible boo xam te ne tey par exemple si boo demee Kaolack di ko fekk boo demee Tamba ah non non non <laughs> ah, non non du ñëpp non amul disponibilité mais xam nga foofu loolu nag man man foofu laay waxee que ni. Mm-hmm. suñu réew yi foofu la mm-hmm. problème parce que man je me dis que tey tey tey ah. soo demee ci réew yu bëri ci àdduna tey tey soo xoolee tey am na jigéen yu bëri tey Sénégal mu ne opportunité wu wala am possibilité wu. am doom. Ah. am doom. Ah. amuñu doom peut-être que tey parce que tey plateau médical yi nga xam te ne moom moo leen war a accompagner ba loolu di am. ak jur ko yàlla ñoo war a accompagner ba loolu di am dafa manqué. <laughs> ñu ngi dugg ci benen domaine Cheikh na hein? mhm. wa mais xam c'est le problème de la pauvreté. Hein? Mhm. man bés bu nek ma wax ko. dañuy mhm. eh, dugg dañuy dañuy dugg léegi ci benen domaine. wa mais non fofu nag. ce domaine là wax nañ ko waxati ko. man wax na ki suma ay émission yo xamné particulièrement je parle de la mortalité maternelle par exemple. xam nañ li koy joxé mais nous, au niveau du Sénégal boo sur une pyramide sanitaire Et mhm. xam nga que 90% mhm. des ressources qui sont là da ngay dem ci région yi am hôpital wala bu dee hôpital là les da ngay dem ci région yi benn spécialiste nga fay fekk te loolu ci région yi wax mais boo demee village mais loolu dañ ci dañ ci war a wax man yàgg naa ci wax. mais loolu tax nag ma posé la question yow mi nga xam ne parce que émission dénkaane aussi loolu mooy rëlam parce que y a des choses yoo xam ne suñ ko tuddul aussi. les autorités duñ ko dégg ba di ko jël en compte. parce que man pour man question de politique la boo xamante pour question de politique générale. mais man wax naa. parce que il faut qu'on en parle. ah mais mais toutes mes émissions. il faut que ñu wax autorité yi. il faut que ñu gisanteeg autorité ñu def une réforme institutionnelle. Mhm. waaw parce que am na yu bëri yoo xam ne ci àll ya muy jógee on n'a pas de compétences on n'a pas une formation suffisante bu ñu mën a may loolu pour pallier à ça mën nañ par exemple da ngay par exemple formation du personnel compétent connais que le médecin wala ñu jàngal ko ba mu mun yenn yi ñun il faut ñu am parce que ci village personnel ya fay nekk souvent wax naa ko waxati ko ay matrone ay femmes de ménage mm-hmm. ñooy accoucher ñooy def lu nekk mm-hmm. mais femmes y buñ taxaw rek ne bon euh, c'est inadmissible non on peut pas critiquer ce matin avec gox yi mhm. dañ ñuy jàppale donc mhm. lenn lañ mën def ou bien former suffisamment ou bien recycler ce personnel là y leen des gestes de base mhm. parce que problème yëpp fa lay les ci village et parfois je critique xam naa ne pas critiquer mais c'était critique positive parce que bu ñuy wax tey ay séminaire di jël lu mel ni toujours ma tudd ko nag xam naa ma mere

xam nañ ne lii yëpp dool la mm. mais séminaire yi ñuy def di ki def xaalis bu dul jeex nañ jël dem def solution sur le terrain ah, loolu nekk ñu jël ki ci ligne bi seexu naa dellu si euh, salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi ziar ku baax naanu ko saalika Baye Massa waaw Mohamed Touré Mbour Mohamed Mohamed Mbour Mohamed waa ba bul dégloo ci télé bi déglul euh, ci téléphone bi. <laughs> dëgg kay yéen a ci jàmm. ñu ngi sant yàlla naka waa Mbour. ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah. ñu lay déglu ci thème bi dafa am looy laajte. nuyu naa waa plateau bi yëpp. Mhm. di leen wax ne seen bés moom maa ñu spécial. seen plateau bi mhm. xam-xam dëgg dëgg moom jamono bu ne ñu ngi ko ciy dégg. jërëjëf. yal na yàlla yokk ko. amiin yaa yokk seen i xam-xam te di nuyu eh, Oustaz Mohamed. Mm-hmm. Buraam Buraam moom Buraam xamu Buraam. Birama. Birama Birama Basin. Birama maa ngi lay yow daal mel ni ndaw suñu Moustapha nga yow sa kàddu gi daal macha allah. macha allah. <laughs> daal mel ni si si yaram suñu Moustapha eh, sëriwul la de. déedéet. <laughs> nuyu nañ la nuyu Mère Thiam bàyyi leen Mère Thiam. donc Sane Maxtaar la jërëjëf jërëjëf. nee na nga bàyyi ma. yow naa yow moom wax dëgg yokk na, da ngay wax yu am am solo wax dëgg yàlla. jërëjëf na beaucoup. ñu ngi lay nuyu yow tamit di leen ñaanal yàlla bu baax. Baye Makhtar ndongo ndongo daal yaa ngi lay siifu de Baye Makhtar. waaw maa ngi leen ziar bu oh, samay copain lañ. ñu ngi siifu wax dëgg yàlla seen émission moom man moom lu may seetaan télé sax du doon bëri mais yéen a tax ma bëgg seetaan télé saa bi. alhamdulilah. wax dëgg yàlla yal na yàlla fay leen yiw. amiin amiin amiin yàlla bu seytaane am wàll. amiin yaa rabbal aalamiin. Birama. la béy. Birama dafa defal ñaan yow daal mel ni macha allah. <laughs> macha allah kay. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Mouhamad ñu sant ko gërëm ko. ñu jaajëfal ko jaajëfal waa Mbour yëpp di leen sant di leen gërëm man ngeen ne def ne eh, ñoom. wala ne Mouhamad woote. Eh, laajte yi tamit ñi nga xam ne eh, ñooy laajte ngeen laajte comme ñoom. ndax ki fi teew. am na lu ne ci dënnam te léeg question mooy génne xam-xam dëgg dëgg dëgg. Mm. mais du nit ki jàpp ci xelam rek di ko développé. am na loo xam ne fekk laajuñ la ko doo ko xalaat. Mm-hmm. ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. oui wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mor Niala tudd tur baat bi la ah. ñëpp xam. Mor na mu la de. na <laughs> mu la. di waa plateau bi ñu toog ñëpp nag. ñu lay fay wax nga nag man maa la raw. <laughs> maa ngi leen di di leen ñaanal jàmm. jërëjëf Mor Niang. di ñaan yàlla na yàlla yokk jàmm ji ba pare tasaare ko ci biir réew mi. amiin amiin amiin. nuyu na jigéen bi nga dalal foofu. Mm-hmm. madame Rose Wardini. Mm-hmm. Euh, xam nga Makhtar. Mm-hmm. moom jigéen la mu ngi toog foofu surtout dama ko interpellé ci yeneen rajo yi. ku ne xam ne ni wér yaram kenn du ko jaay ci marché. te ñun ñëpp a jéem kenn ku nekk balaa sa soxnaa dem hôpital ak fekk gisutoo ci moom dara. Mm-hmm. xam na ni jigéen ñi li ñuy def ci biir kër yi surtout couple yi. Mm-hmm. ñoom ñi dañoo wax a wax bay bëgg dee mais Sénégal moo naqari. Mm-hmm. bu kenn ki faju kenn ki fajuwul fooy gisee fooy gisee malade. te feebar ku nekk mën naa egg ci moom. wax na ko léegi nii ma gis naa benn femme xam ne cinq am na presque cinquante huit ans et di am doom ba nëgëni. Mhm. moom sax maa ko ko bëgg ma bëgg naa mu waxaale ko ci war na ne màggat du tee am do mhm. transport bi toog foofu mhm. maanaam rosebas ni ma ne ko ne ko am na pour am cinquante huit ans et di am doom te dama gis euh, xam naa bariwu ci nag mais am na si parce que dañuy toppatoo seen mbirum wér gu yaram mais jigéen bu dee toppatoo mbirum wér yaram fan la koy jël fan lay jële taw ah ñoom tamit li ma waxoon foofu sama sëriñ yu barki démb rek Mm-hmm. couple yi nañu àndandoo ñoom ñaar surtout moom doog foofu nañuy bindandoo lettre woo leen ñoom ñaar ñu convoqué leen mm-hmm. ñu ñëw ñu seetandoo leen ñoom ñaar ñëpp mm-hmm. loolu moom bëgg naa mu ñoom ñu xamoon waa lañ koy def xam waaye di woo ko jigéen nga loolu laa la bëggoon laaj Mor Niang ce que jarul mu dem ba yegg ci ñu tëral benn loi boo xam ne nii day tax góor gi bu bañee ñëw pour loi forcé ko pour mu ñëw ndax dana ko jar léeg-léeg xakay ah, xakay ah, dafa war a ñëw mataar waaw wax naa ko foofu dem nee na normalement war nañ ko benn loi sax parce que boo xam ne yow léegi bu ñu convaincu euh, mariage bu xasee ba am. Mm-hmm. bu ñu ne kii na dem ci hôpital mais dañ leen di boole ñoom ñaar ñu woole. Mm-hmm. loolu sax ñoom ñuy bind euh, kii ñoom ñoo ko war a bind. Mm-hmm. noo ko àndal sa jëkkër nga ñëw jox ko ko. wala nga bind leetar jox ko bind ku jigéen gi jox ko ñoom ñaar ñëpp ñu wuy seenoo. nga joxoon leen rendez-vous. ñu seetlu leen ñoom ñaar gis nga boo demee université jafe-jafe yi gars yi am yëpp boo fa demee matériel yi fa nekk. pour ñi nga xam dañoo toog amuñu doom amuñu dara nañu dem ci borom xam-xam yi. Mm-hmm. nekkatuñu démb mataar mataar nekkatuñu démb yow ab bopp nga daan yor de laal ndogu dama ko dig. léegi machine yoo xam léegi da ngay taxaw tiim ko doo laal dagab ba. Mm-hmm. kon avancement am na avancement am affaire moom avancement am na. Mm-hmm. avancement am na ci médecine bi ndaw soo ci foofu maanaam mi ngi nii xam na ne avancement bi médecine avancé na trop léegi. loolu daal laa ci doon barkeeloo di leen ñaanal jàmm bañ a téye ligne bi. barkeel na jërëjëf moo Mor Niang góor ñi nañuy jege hôpital yi nga bàyyi toog ci biir kër yi di wax rek naan yàlla dina ko dogal nga toog vingt ans quinze ans amoo nga toog rek naan yàlla baax na déedéet hmm. demal nga seeti médecin yi d'accord jërëjëf yàlla yaana bay sa tool dem leen hmm. seeti médecin yi uh-huh. euh, dem leen lu ji hmm. góor gu baax gaja Tiwaawan Sëriñ kër Si moo ko doon wax tarku tasabbu bi xul min su ima adabin sabablu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya mu ne ñàkk a sabablu ci li yàlla yor war la koo jox te jotagoo ci nga bañ a sabablu pour jot ci mu ne loolu ñàkki teggin yàlla la mu ne sabablul demal nga uti waaye nag bul sukkandikoo yëngu ya yàlla joxee ba noppi nag bul ne li ma yëngatoo ma may mhm. mais delloo ko ci yàlla mhm. bul sukkandiku sa act boobu nga def mhm. loolu dañ la ko sas rek mais kii maye yàlla la waaye def la sant nag nga sabablu defee sabablu lañ sant ki nga xam ne loolu gaar na ko waaye mu xam ne tamit loolu du cent pour cent wu say doom loolu benn pour centage la ci rek mën nañ ne vingt pour cent wala trente wala quarante neex na ci waaye say dëgg-dëgg mu achara la mm. wa achiruhunna bil maaruf mm. loolu lu am solo la uh-huh. dafa am ñu doon xaar yegg seeguñu kon ñu bàyyi ñu woy damay damay laaj balaa ñoo continuer fibrom problème la tamit bu bu bu buy gaar jigéen ñi léegi lu bari. waaw bari na bari na torop ci jigéen ñi. waaw léegi te dañuy gis eh, jigéen ñu bari comme li nga wax ne du problème comme yéex a sëy gi seexu naa laajte woon léegi. Mhm. dañu gis léeg ñi nga xam ne yéex nañoo sëy la ëpp lu muy dal. Mhm. te opération yi yu ci bari day am risque. Mhm. ñaareel ñu ci jëlee dara ci opération xam naa ci ñaar ñoo xam ne ni yàggul. ñu ñàkk seen bakkan ku ne opération boobu la def. Euh, loolu tamit euh, euh, nu ngeen koy dundee léegi ci société bi. problème mu fibrome loo xam ne lu grave la ni opération bi tamit lu yomb la xanaa kañ xëy na am na beneen problème bu ci rax. Mhm. parce que ñiy am fibrome parfois dañuy sotti deret lu bari te bu ñuy sotti deret lu bëri mun nañ am li ñuy wax anémie. waaw baal ñu balaa ngaa wéyal kii dafa mm-hmm. bëgg a bokk salaamaaleykum. waaleykum nga def. waaw Euh, waaw yaa ngi direct ñu ngi lay déglu. dégg nii ñu ci wax lu am solo. Hmm. léegi jigéen jigéen ju taxaw taxawaay bu yàgg te règle ñëwul moom lan la ci nekkee xam. jigéen ju taxaw taxawaay bu yàgg règle ñëwul. Hmm. waaw nga xam doomam nàpp na ba fer ba am ay at yii. Hmm, euh, mosul jël pilule. déedéet mosuma kaa jël. d' danañ ci dégg. waaw jërëjëf.

jaarul yoon wala am na lu bari lu ko mën a indi mhm. Mhm. donc mais bu dee fibrom kese moom nekkul lu jafe loo xam ne mun na indi problème buñ ko opéré luy waral ñu koy opéré muy dikkaat day sax buñ ko opéré ba pare war nañ ko jox traitement boo xam ne day tax du sax mais souvent femmes yi dañ leen di opéré après du ñu am suivi wala ñoom ñoo dul ñëw su ko defee dana sax day saxaat mais yéen i tamit est-ce que bari ngeen ci dëkk bi yéen gynécologue

Madame def une décentralisation des soins formation bu doy euh, sensibilisation bu recyclage personnel yooyu yëpp war nañ ko mhm. wax une réforme institutionnelle parce que y ñu une couverture maladie universelle d'accord y a des progrès comme nous, ko gi waxee am ay machine am nañ yëpp waaye li ki des mooy ñëpp jot ci du Dakar rek région les village qui sont décentralisés. décentralisé lan ah, ngay conseillé ñi ñi def opération boobu noonu ci fibrom mhm. pour mu bañ a ñëwaat foo leen di conseil pour orienter leen foofu fa ñuy opéré fañ leen opéré la ñu war a toppaat topp seen médecin ñu jox leen ay traitement di leen di suivre pour mu bañ a saxaat mhm. loolu am na solo trop d'accord euh, ndaw si laaj question bi léegi euh, maanaam taxaw noonu taxaw gannaaw ñàkk gis rek moom la ñuy wax aménorrhée loolu tamit euh, dañ koy gëstu rek faj ko parce que mun nañ ko yenn saa yi am na jigéen yoo xam dañuy accoucher perte deret bu bëri bëri bëri mën na leen indi loo xam ne mën nañ toog bañ a gisati rek. loolu waaw meret bi xam nga ni ñu koy waxee. meret bi yéeg waaw am na loolu tamit loolu mën na indi loolu. mën na indi tamit jigéen buy nampal mën na bañ a gis règle tamit. parfois am na ay traitement yu ñu koy jox ay ovule contraception yoo xam ne pour ñuy nàmpal loolu tam mën na tax ñu taxaw. ba mu yàgg mais loolu yëpp comme ni ma ko waxee mën nañ ko faj u dellu si waat hmm. nekkul problème boobu mu neen digal d'accord maanaam mu dem ci gynéco yi wala mën a dem hôpital fu ne waaw mën na dem ci gynécologue wala ci sage femme yi xam nga sage tamit ñoom faj jigéen ñi am na solo torop seen liggéey bi ñuy def euh, ñuy def d'accord ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si nga def waaw maa ngi a laaj waaw man dafa numéro gynécologue numéro gynécologue bi. waaw waa bul coupé ñoom may te jël la ci suuf incha allah. waaw xam naa nañ ko jël ci suuf incha allah jox ko ko. Euh, ñaareel am na yu ñuy bëgg di gëstu. Mhm. te dañoo bëgg wax ci kaw. Mm. ndax feeñ <laughs> li wolof di wax ne ku wax feeñ. dëgg la ah, euh, Oustaz Birama boo question boo koy laaj. waaw question bi xam naa tànk da nga ma teg si benn si benn piste mooy bi nga waxee ne sëy moachara la. te man toujours damay campé wu ci boobu ci boobu tomb oustaz ndax doom d'accord seexu naa toujours dafay moom dafay dafay moderniser waxtaan bi dafay bëgg toujours ñuy dem euh, vers leneen loo xam ne ëpp na li nga xam ne loolu lañ jàpp moom mooy tax dafay bëgg toujours mais toujours nag bu ñu fàtte ne euh, sëy muaashara bi moo si ëpp doole maanaam muaashara bi moo si ëpp moo si ëpp doole mhm. maanaam ànd bi nga xam ne góor ak jigéen dañ ko war a ànd mu nekk lu rafet moom moo ci ëpp doole xam nga xam nga sànq wax na yu bari wax na cause yu bari yoo xam ne nit ñi war nañ ko mën a bàyyi xel li muy firndeel rek mooy maanaam nit ñi war nañ bàyyi xel kër docteur war nañ ko bàyyi xel ndax euh, seexu naa posé na ko question wu ndax yéeq a sëy gi bokkul ci cause yi mais li mu joxe comme réponse <coughs> mooy na ne comme que jigéen ji mi ngi am règle war na mën a war na mën a am doom mais yéeq a sëy euh, docteur xam nga yéen am na lu ngeen di tuddee euh, sécheresse vaginale n'est-ce pas loolu booy xool du dal xale d'habitude mm, mm, mm. normalement dal xale léegi nag jigéen euh, jigéen bi nga xam ne dafa yéex a dugg si dafa yéex a dugg si néegu sëy maanaam euh, nga baal na baat bi maanaam sexe bi nga xam ne moom la yàlla def si jigéen bokkul ak bi mu def si góor mm-hmm. ndax jigéen puisque muy gën a nekk mag dafay mel ni kuy suur sëy manam jigen bu am borom keur sax puisque muy nek mak da fay ni da fay sëy manam jaxaso bi manam ànd bi nga xamne rapport sexuel bi am góor ak jigen jigen puisque muy dem mak affaire bi daf koy daf koy gën di bàyyi di wañeku manam désir bi da fay wañeku ci mom góor na contraire mo am ci mom bu fekkente ne dara dal ko man na dem am 120 ans di meuna sëy di am dom te da fay soxla bopam légui lool nak ban ban ban ban solution lañuy lañuy duggal ci kër gi nga xamne lu mel non ma fa am maanaam góor gi nga xamne ne dafa nek mak d'accord soxla njabot ak ñu jël solution bi ci jël utal kii solution ki ci ligne bi ah. après ñu tontu Diouf. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def alhamdulilah yaa ngi jàmm rek. sant yàlla dafa am benn question bu ma ko doon laaj. Mm-hmm. man dama judd 64. Mm-hmm. waaw kon léegi ménopause gu damay gis règle ba damay 6 mois ko gis. 64 mm-hmm. nga judd. Ah. d' accord ma tontu ci mën nga ñëw direct ci boobu balaa ñu ko ah. ah, dafa am lu nga xam ne mooy li ñuy wax ménopause précoce. Mhm. mi dal jigéen ñi à partir de trente cinq quarante ans. am ménopause tardive. tardive mhm. sànq sëñ bi wax sànq nee na am na jigéen bu am cinquante huit ans am doom man na bu am soixante ans am doom. Mhm. loolu mooy ménopause tardive. mooy jigéen nga xam ne dañuy dem ba. vraiment avancé hmm. soga a ménopause moom kaam bi muy wax day toog ay 6 mois loolu moom li ñuy wax ménopause mhm. mu ngi dem ci ari bi maanaam mën hmm. nga toog ñetti weer doo gis après nga gis ñaar yoon après nga toog juróom benn weer mhm. après nga dem ba ba mu arrêté ba donc actuellement mu ngi ci li ñuy wax préménopause hmm. yow ma enchaîné ci sa ci sa kii bi li nga wax noonu manam jigen buy dem mak libido bi manam désir bi day ko bon jigéen bi dafa am ay hormones yoo xam ne hormones yi nga xam ne mooy tax muy am. Mm-hmm. développé maanaam mm-hmm. cëram yi. Mm-hmm. wala hormones yoo xam ne mooy tax. liquide boobu mu koy am te liquide boobu lu am solo la jigéen. ndax mooy tax du nekk séché du wow. buy sëy. jigéen boobu day participer ci acte sexuel bi. maanaam day lubrifier. loolu lu am solo te bu demee bay dem mag hormones yi war a def ndox boobu mu bëri xam nga day wàññeeku. su ko defee parfois day yëg sécheresse. sécheresse boobu muy yëg nag parfois da koy sonnal ci rapport yi. ba du amati désir. mais loolu yëpp lu ci nekk faj solution am na ci. mais est-ce que loolu mën mën na dal xale ndax. sécheresse vaginale parfois mën na dal xale bu accouché ba pare ci période boobu. perturbation hormonale mën na indi après accouchement bi. parfois dinay dal xale mais pour momentanément du du du yàgg. loolu ci suite accouchement et parfois jigéen yi de koy am. Mm-hmm. mais jigéen yi dem mag ñoo am parce que une hormone day wàññeeku. Mm-hmm. waaye du dara jigéen mun na dem ba mun am aéroport mm-hmm. à condition am un traitement hormonal substitutivement il li nga les ne li manqué ñu indil ko ko. su ko defee yëpp mun na dem normalement comme góor d'accord merci à moi Mm-hmm. ah Rose de li fi wax moom xam naa ne bu boo jigéen ñi dina déglu bu baax a baax a baax. ñu ngi lay déglu mm-hmm. parce que jigéen ñi. ñu déglu ko ci ligne bi. après moom nañ ko déglu. Ah, <laughs> salaamaaleykum. xam ah, moom problème yi moom. Mm-hmm. na moom góor ñi la ma jaaxal du seen problème. doon laaj léegi si. nii la woon. le 21 léegi sama doom bi seer na ba léegi gisuma ko damay bari. est-ce que dem nga seeti ñu mel ne moom gynécologue yi. waaw demoon naa ko tey ñu ngi bindal ay garab yi waaye nga demoon. ci sage bi nekk Darou Mouhty. Hmm. non sage bi nekk Darou Mouhty. d'accord ah. soxna si. Hmm. waaw. ne loolu moom. Ah. fàtte ko rek dina ñëw. parce que tant que koy xalaat di ko xalaat day bloqué. Ah, fàtte ko bu fekkee ne seet na la sage bi gis na amul dara. da ngay fàtte loolu nekk ci yeneen. waaw ñi nga jékki rek mu ñëw. parfois loolu mooy indi blocage. ñu. am na solo loolu. dëgg yàlla. waaw kay waaw kay. amiin amiin jërëjëf euh, yéen tamit seen corps bi dama wax ne da ngeen di comme journaliste yi la da ngeen di protéger seen morom yi ci seen biir. Hmm. problème bi yu mel nii léeg dañuy seeti ñoo xam ne dañ leen war a tëb ñëw ci yéen. Hmm. am na koo xam ne waratul a yem ci sage-femme dafa war a dépasser sage bi. ñëw ci gynécologue bi. Hmm. pare nga ne ko euh, sage-femme bi wax na la baax na. mais sage-femme dafa am fu xam-xamam yam ñaareel ñu mel noonu bu ñu leen tëbee ñëw ci yéen solution am. yaa ngi wax mel ni mel ni mel ni li ñu wax sànq dégguloo ko mais ñun amuñu amuñu docteur yu doy. Hmm. docteur yu doy amuñu côté sage-femme yi wax dëgg yàlla ak gynécologue yi père lañ. Uh-huh. ñu ngi def liggéey bu am solo. man mii di gynécologue sage-femme ma jàngal yi fi gynécologue. Uh-huh. donc euh, ñoom tamit war nañ leen delloo seen njukkal am seen xam-xam. Uh-huh. quand même am nañ seen xam-xam. xanaa rek peut-être li ñuy différencier mooy yenn opération yekkii te léegi sax mhm. ak formation comp formation personnel compétent am na ci ñoo xam ne dinañ ñëw di aider ci opération yeeg yooyu mhm. ay alternative la ñun dëkk bi ñu nekk pour ñu mun a am li ngay wax il faut que ñu am médecin yu doy mhm. mais bu ñu amul il faut que paramédicaux yi di ñu jàppale ci liggéey bi parce que maa ngi lay wax sànq sax boo demee ci àll yi ay matroon nga fay fekk te ñu ngi def liggéey bu am solo

non ñun suñu association bi depuis peut être quinze ans vingt ans ñu ngi dem ci àll yi. mais dama ni loolu doy ñu dem ñu dem jël kii dellusi. am na kuma dem àll bi am na solo mm-hmm. foofu noonu macha allah salaamaaleykum. aleykum salaam. benn góor ñëw na. Ah, kooku dafa dégg dafa dégg Ousama Tall. non seexu naa bi ma bi ma sànnee xeer bi mi ngi doon xaar lu mel nii. pour ma ma delloo <laughs> salaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi ziar. aleykum salaam. ñu ngi ziar bu baax. alhamdulilah. déglool ci téléphone bi. waaw dama doon laaj dama ba am gaaw a gaaw sa bopp bi ci ci affaire bi lu ko lu koy waral quoi. da laaj. dégguñ laaj bi. ma ne. Hmm. par exemple ngay sëy ngay teel ngay gaaw ngay gaaw a ah, gaaw a jot sa bopp ah, d'accord lu koy waral. d'accord. waaw mën na ñëw ci question boobu direct ndax loolu tamit problème la pour tey am doom gaaw a yegg non loolu mënul tere am doom mais loolu tamit ci boppam il faut que mu am maîtrise de soi xaw ma ni ñu koy waxee daal mais il faut que mu mun a maîtriser boppam pour lu mel noonu parce que souvent loolu dinay arrivé nit ñu bëri wala mu seeti tamit urologie parce que urologue am parce que mun na am ay causes yu mun a tax loolu am ah am na feebar yu koy waral am na feebar yu koy waral d'accord mais loolu du tere am doom moom. Hmm. Hmm. dafa am ñu ma yónnee message xam naa bëgguñu wax ci tele bi. mu ne ndax jigéen ñi ñuy xarafal problème yooyu yéex am ñàkk doom yi dafa leen ndaxte rakkam dañ ko xarafaloon mais jusqu'à présent dafay sañe su ëmbee day sañe sañe bi daal day bëri keneen ki mu ne dafay nàmpal ba pare di gis ay règles tout le temps lu indi loolu. njëkk euh, problème excision. Hmm. waaw. ne dafay gis dafa pour dax dafay tere am doom wala déet. waaw pare li muy saña yàgg na yàgg na mais ba léegi daal. Mhm. règle cinq jours. Mhm. dafay li muy saña dafa bëri dem na fu nekk daal mais daal tout le temps mi ngi am problème yooyu. waaw mais loolu mooy li ma la wax rek perturbation cycle menstruel bi. Mhm. il faut ñu xam li koy joxe parce que kyste mën na ko joxe fibrome mën na ko joxe dysfonctionnement ci boppam mën na ko joxe. dara mais. règle yi day ñëw tout le temps tout le temps te loolu lu mat a faj la parce que règle buy sotteeku muy mel ni robinet bu ñu ubbi rek te loolu lu muy indi moo gën a grave que li mu am maanaam bu continuer noonu anémie boo xam ne mun na dem mhm. ba mari d'Italie yóbbu bakkan parce que day décompenser wala moo indi problème l'excision bi dina waral dina waral ñàkk doom ça dépend bu fekkee excision boo xam ne jaarul yoon mun na indi ay complications comme ni mu wax mais bu jaaree yoon amul bu jaaree yoon normalement amul problème d'accord ñu jël kii salaamaaleykum وعليكم السلام ورحمة الله. سانا سي نيغي زيار؟ ااا سي زيار ما الحمد لله. يلا يلا قدر سي امين يا ربي امين. يلا يلا صحاو. امين امين. امين شكرا. يلا يلا آتي بركي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين. بركي لا اله الا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. امين. ما صفوا وحسان لي. والله ما صفوا وحسان لي. ما بقى. sonn mu leen ko arrêté. ah. Hmm. billaay wallaahi. ah waaw am na ñu koy wax de xam naa daal. daf di <laughs> yàlla mu leen ko wax bi. Hmm. ma bokk ci ñoo xam ne. Hmm. man yàlla mayaguma doom. macha allah maa ngi sëy 1994. Euh, léegi ñaata at na léegi. 24 ans. ah 94 ba léegi ñaata at la. 24 ans ñaar fukki at ak ñeent. bu leen yow da yow da ñëw buñ ko buñ ko wéyalee. man waaw bon. Ah, kon baax na. incha allah. léegi bul coupé waa régie nañ jël sa numéro après nañ wax. waa jëlal ma sama numéro bul coupé bul coupé yow kay. technique amiin allah amiin amiin. su dee ñu fa toog ñëpp mhm. maa koy nuyu bu baax. maa ngi lay mhm, lool macha allah. kon waxtaan nag. Mhm. moo neex moo ma ñor. topp merci beaucoup. merci jërëjëf bul coupé. danañ ko jël am na ñu bari ñoo xam ne mënuñoo wax ci kaw. Mm-hmm. mooy keroog li ñu doore woon bi ñu dooree thème bi. Mm-hmm. mooy jéggalu thème bi ci boppam. Mm-hmm. ndax dafa sensible. dafa bari société bi ñu koy dund léegi lool. te mm-hmm. léeg-léeg fi ngay waxee. Mm-hmm. yaa ngi blessé kenn te yëgoo ko. Mm-hmm. te émission bi ñëpp a koy seetaan. waaye ñu ci jublu rek solution la comme lu mel nii. gis nañ ne am na tey am na koo xam ne bu dégloo thème bi bañ jeexal ko. kooku moom gis na fi mu war a jaar gis na solution. dalal nañ fi professeur Gawsa Sambou démb wala mm, bërki démb mm. Mm. mu ñëw fi indi loo xam ne lu jëm ci wàllu xam-xamam bu màcc ci wàllu wolof la tey mi ngi nii dalal nañ la ëllëg mën nañoo dalal keneen bu mm-hmm. buñ jógee ci yooyu noonu dana am koo xam ne te doon nay nelaw jot na nag mu yeewu pour dem jéem a sàkk ji pexe mm-hmm. euh, kon loolu am na solo dañu bàyyi rek seexu naa mm-hmm. euh, bu fekkee am na looy dolli pour laaj ko euh, man dama dul oustaz Birama dafa am wax bu wax sànq mu ne ci wàllu sëy jaxasoo yàlla dafa wax jaxasoo ci wàllu sëy mais booy booy gëstu si yeneen saar alxuraan yàlla dina wax que ni dama leen amal ci njëlbeenu amal bi ci dumbulu ci maanaam ci ci ci ci sperme ci mhm. sperme la jóge mhm. kon sperme boobu noonu mhm. dafa important mise à part jote bi kon foofu noonu su fekkee dafa wax ni dama la amal dama dem am si njëlbeenu amal bi sperme boobu la mooy cosaan bi kon cosaan boobu noonu dafa nekk lu jar a bàyyi xel mise à part daje bi même parce que bu daje amul cosaan bi loolu mën na am sperme boobu mën na kon ah kon loolu mooy base bi mooy base fondamentalu doom bi man pour man sama xalaat. léegi yow quest par là non non que dama la ni que ni. Mm. parce que sànq am benn wax nga bi mu waxee nga ni yàlla bi muy wax ci sëy ak mbirum doom dafa wax jaxasoo ma ne jaxasoo bi sax ce n'est pas le plus important mais pour man li gën a important mooy que liquide boobu noonu nga xamante ni moom mooy mm. cosaanal doomu aadama. Mm. léegi ma jóge foofu noonu ma am benn laaj. mooy na àggaleel. nga àggul de balaa ngeen a àggale ñu ñëw ci. àgg na kii àggale wax bi ah, ah, ci kii salaamaaleykum. allo. waaw salaam waaw. na ngeen def. waaw déglul ci ci téléphone bi dafa am euh, loo bëgg a participer wala looy laaj. dama am confusion. la baax. maa euh, koy dégg. waaw. ñu dégg la. dafa. ma ne dama waaw woote. dafa am infection. Ah. waaw euh, bu mënee woote waat pour question bi gën a gën a leer. Mhm. Euh, dafa mel dafa am infection téléphone bi ne ci ginnaaw ñu ñooy téye rek waaye. Mhm. ku ku génn rek keneen mhm. keneen dugg. ndax niñ ko waxee da di thème boo xam ne dafa laal. dafa laal ñu bari ndax société bi société la boo xam ne ku sëyul bëgg a sëy. Euh, ku ne yaa ngi ñaan yàlla nekk ci buum am soxna wala nga am borom kër. noonu la société bindoo du société bu desal ginnaaw sëy. te ku tudd say ñaareel problème yi ci lay juddoo ki nga xam ne dugg ko ci moom xalaatagul am doomam ñàkk am doom ah. jàpp na ne moom xelam dana ko am mais nag ñi ci dugg ba noppi di ko dund dafa bari mm. salaamaaleykum waaleykum salaam wa si. maa lay ziar. yàlla na ko yàlla nangu. man la ko soppee Fama Ndiaye Kaolack. Fama Ndiaye na ngeen def. Fama Ndiaye Ndiaye. ah Fama Ndiaye waaw Ndiaye Ndiaye. man dama laa bëgg lool nag yaa Oustaz Mohamed. yàlla ñu yàlla bëgg Ndiaye. ki nga bëgg dem nga. soxna soo. mère Thiam wallaay di ziar baax na benn du ma ci rëcc wax dëgg yàlla. wallaay naka waa Kaolack. ñu koy ñu de sama la. bu neex daan Ndorong loolu tax ñu bëgg la bët. ndeysaan. ñu lay ziar bu baax ne émission yi ngeen di am na solo lool macha allah. jërëjëf. la première fois may door a ci télé. Mhm. ay kontaan lool seen émission yi macha allah. yàlla yàlla kontaan. la koy jaale yow. waxtaan jërëjëf. jërëjëf ñu sant ko gërëm ko. di nuyu waa Kaolack yëpp dañuy bàyyi xel ndénkaane foofu mhm. sunu dëkk. wala mhm. daan waxee laara bi laaraan. <laughs> amoon na këru ah Ndorong. Ah, dañu amoon bu ñu yalwaane kër goo xam ne këru kafe ga. Ah. këru cere këru fonde ga. kër meer mm. <laughs> ñeent dërëm. amoon nañ meer boo xam ñeent dërëm rek lay saraxe ndax ah. ñeent doom la am ku ne dërëm la lay saraxeel <laughs> yooyu ci istuwaaru daara ji la dañ ko fàtte. ñu jël ki dikk salaamaaleykum. allo. allo waaw soxna si. papa Tonton. na ngeen def. ñooy si. dafa am looy laajte. waaw. dafa am looy laajte. docteur rek lay déglu. waaw dafa am dama am trois opérations. Mm-hmm. léegi dama am trois opérations. Mm-hmm. principal. te léegi depuis huit mois gisuma règle après ba defee règle drain bi deux yi ci loxo yi ba léegi lu may day ñëw trois fois ci weer bi. te damay miir di sama côté côté bi ñu def ci planning bi côté boobu day dee ak tànk bi léegi loolu laa bëggoon laajte loolu lan la. parce que day ñëw ñetti yoon ci weer bi. da def planning ci sa euh, appareil boo def sa yaram sa loxo. brin la def. brin brin. brin bi. Ah, hmm. ah, brin yooyu waaw. brin yi mun na mun na def loolu. parce que molécule bi ci nekk muy progestatif. mun na tax muy gis euh, règle lu bëri yoon. Mm. mais loolu tam solution il faut nga indi ko ci soxna il faut nga seeti ki la ko defar ñu indi ki solution parce que booy gis ñetti yoon loolu moo tax ngay miir. anémie bi trois opération yi pour lan la li mu wax. Ah, bu trois opération yi xaw ma lu ñu ko opéré mun naa am césarienne mun naa am mm. fibrome. Mm. xaw ma ban opération lañ ko defal waaye lu mu munti doon rek brin yooyu mun na indi. gis règle bu bëri mais bu bëree ba bëri comme ni mu koy waxee il faut ñu indi ki solution am na solution yu ñu ci mën a indi. lu mel nan. Euh, jox ko ay garab yoo xam ne mën na tax mu bañ a. dina wala nga dindi ko parce que bu fekkee supporté wu ko bay gis ñetti yoon ci weer bi. loolu bu yàggee da koy def anémie moo tax muy miir. Mm-hmm. am direct loolu sax en même temps na nga jël fer waaye fer bi sax du du du dina indi solution rek waaye solution définitive mooy soit ñu dindi ko soit ñu indil ko ci ay garab yoo xam ne mooy tax. Mm-hmm. mu continuer noonu parce que bu continuer bu yàggee loolu musiba la. d'accord ñu continuer jël keneen salaamaaleykum. allo. waaw. na ngeen def. yaa ngi fi. yaa ngi ci biir. yaa ngi ci biir ñu ngi lay déglu déglool ci euh, téléphone bi bul dégloo télé bi allo soxna si. waaw maa ngi wootee Lat Mengue. Lat Mengue. Lat Mengue dëkk sama <laughs> waaw. Euh, bisimilah. fay gërëm bu baax. ñu ngi hmm. def Lat Mengue lu rafet rek la fay def. ndeysaan waa léegi man dama doon laajte. waaw. fii planique bi ñuy def ci kanam. stérile stérile. day joxe kii cancer. déedéet. planning bi ñuy def ci kanam mooy stérile. Mm-hmm. mooy beneen bi ñuy dugal ci biir butitu njurukaay bi. Mm-hmm. non loolu mënut joxe cancer. Mm-hmm. mën ta joxe cancer waaye boo ko defee mën na yokk tuuti sa règle. mën na yokk sa règle. mën na yokk tuuti mais mais concernant stérilé bi. Mhm. des fois dañuy gis ay jigéen xamante ne dañ lay wax ñoom dañ ko doon laam di ko daj. mais dañuy jékki-jékki soit ñu ne dootuñu dajatuñ ko wala genre deme noonu lan mooy cause soit dafay mën a mën na jàll wala wala da mën na rëcc di ko lamba sax loolu mu normal mhm. xanaa nga làmb fil bi mhm. parce que day am fil buy lang mais di làmb stérile bi mhm. loolu normal ça veut dire que eh, fi ñu ko placé baaxul te bu yàggee mun na deñ wala mu migré mais munul munul migré dugg ci biir dugg non normalement dafa war a dugg ci biir bu ci jurukaay bi ci bi lay placé wu waaw à dix mais loolu su amee amul benn cause boo xamante ni mën na ko yàqal ci loo xamante ni si ëmb beeg ci yooyu ci ëmb bi non stérilé ndax stérilé bu jàllee dem dugg ci biir laa bëgg wax ni bu jàllee. Ah, bu jàllee il foog ñu dindi ko. foog ñu dindi ko. waaw parce que stérilé mhm. a xam naa mais xam nga bu bu rëccee moom bu moom foog ñu dindi ko. foog ñu dindi ko. foog ñu dindi ko waaw. intervention chirurgicale la intervention lay doon euh, sama beneen laaj bi mooy que tey li ñuy wax nguuna ngaana fii ci Sénégal. ñoo xam ne dañuy am ay doom ñu juddu. Mhm. am ñaari sexe wala ñu am ay hormone ñu nekk mu nekk jigéen. Mhm. mais bindoo am ay hormone mâle wala nga gis xam ne dafay nekk góor am ay kii yooyu est que yëpp bokkul nekkul ay causes yoo xam ne war na mën a tax nit ki bañ a euh, nit ki infertilité. non waaw ñu bañ a ñàkk kii ci ligne bi ñu jël ko. asalaamaaleykum na ah, euh, maa ngi nuyu waa ñu ngi lay fay. Euh, di jaale soxna Zeyna Fall. ñu ngi la koy jaal. ñu yàlla na ñu la koy yàlla xajana. amiin yaa rabbi amiin. Euh, à part loolu benn question laa bëgg laajte ci madame. Mm. Mm-hmm. mooy je suis en mariage de que six mois de mariage maintenant. Mm-hmm. bon madame moom mu ne ak euh, temps yi bu ñu xasee def rapport. Mm-hmm. Euh, après le rapport après le rapport après kanam bi da koy métti quoi. après dégguñu dégguñu laaj bi bu baax dé non néna bu amé rapport ak jabar kanam bi fay métti. kanamu soxna si waaw. voilà kanamu soxna si mu ne après le rapport kanam day day métti bu mhm. baax. mu mu tane mu mu mu kii mu ne ko kii la quoi euh, infection ko ay garab ay traitement il elle vient commencer le traitement ça fait même pas trois trois jours bon juste ma ma ma nga bëggoon renseigner euh, madame docteur yi lu mu wax après ensuite bëgg naa ko xam pour mu ñëw déplacé wu dem euh, hmm. voilà bu fekkee mën naa am adresse am. Euh, bi bi ko sage-femme bi joxe garab yi ndax tànne na wala ba léegi. non commencé na y a y a deux jours trois jours comme ça moom est-ce que doo xaar ba garab yooyu jeex pour xam ndax résultat dana ci am. waaw ok naqaraan sax waaw d' accord léegi bàyyil waa régie nañ la jox numéro am ci suuf ah. voilà d' accord. voilà d' euh, danañ la bul coupé waa régie danañ la jox numéro am euh, ku soxla numéro am rek boo wootee nii régie nañ la ko jox. Uh-huh. Euh, maye na loolu pour. ñu bëgg a jokkoo ak moom ah, uh-huh. allah pour ñu am numéro uh-huh. loolu tamit dana ci am solo. ndax am na yoo xam ne nii. li ñaan bu buum dangee arab yee koy wax dañ koy yeew ci bopp kuy macha allah seexu naa defe naa joxewoon nga question bi pare dégg nga laajam li mu laajte woon mën nga ci ñëw kon direct tontu naa ko ci information yi muy wax donc affaire yi infertilité. <coughs> mu comme par exemple tey da ngay gis koo xamante ni par exemple dafa am ñaari. nguunu gaana bi ñaari sexe question boobu la malformation la. malformation la du ko teree. est-ce que kooku dana ko teree am doom. du ko déedéet du ko teree am doom. du ko teree am doom. non du ko teree am doom day am ay cas yoo xam ne anomalie mun na ci am. Mm-hmm. am ëmb yoo xam ne. moo tax bu jigéen ëmbee ci début ëmb bi dañuy tere muy jël n'importe quel médicament. Mhm. parce que période boobu la xale bi di formé. Mhm. am na garab yoo xam ne mun na indi ay malformation mhm. rajo yi ñuy def nii waru ko def. mun na indi ci développement fi muy formé boo ko fa defee day def ay malformation donc euh, sànq ci sa njëlbeenu wax. Euh, ci euh, cas in vitro bi. da wax ni que ni ay jafe-jafe mun na ci am ay complications mun na ci am. complication yi c'est dû à quoi ba pare est-ce que tey loolu technique yooyu noonu est-ce que am na Sénégal accessible au Sénégal. ba pare aussi. lan mo tax sank nga wax ni que ni jafé jafé mën na ci am. ci euh, affaire yi. fécondation euh, waaw in vitro non jafé jafe maanaam euh, difficulté lolu bokoy def. Mhm. fa nga concentrer wu ci technique boobu. Mhm. dafa jafé waxuma jafé jafé mais dama né mën na baña réussir. Mhm. comme mën na japp mais est que am na ñu spécialisé wu ci loolu. ñoo xam ne Sénégal koy def. d'accord ici à ah, Dakar. Ah, ñu seeti Abi mu tënkal ñu lan moo nar a gën a fes bu benn waxtu jote incha allah Abi salaamaaleykum. waaleykum salaam oustaz. ñu ngi lay ziara. ñu ngi delloo ziar bu wér. benn waxtu bu jotee lan la ñuy xaar. waaw li ci gëna fess euh, bokk na ci li nga xamantene si mooy euh, ñaari euh, membre yi nga xamni dañoo bees rek daal di jugee ko ci société civile ñoom dinañ bokk ca ñay sayto ko chamber parrain ya ci charte ndayu réew mi di conseil constitutionnel mu doon dogal bo xamantene rek nguur geek ñi nga xamni ñoo faré ci gujje gi ñoom ñëpp ñoo and di ko rafetlu waye ñi nga xamni ñoo bokk ci société civile japp nañu ne ñooñee di leen fa téwal dinañ def seen liggéey nu mu waré ñi yëngu ci walu média rafetlu nañ membre yu bees yu ñu tek ci conseil national de régulation de l'audiovisuel ci durub juróom-benn at seen liggéey nara doon saytu xool wala sax teg ay daan ci eh, yenn yi nga xam ne ñu ngi koy faral di gis ci eh, télévision yi te du jaar yoon na CEDEAO jël eh, dogal gën a soob loxoom ci lépp lu jëm ci xeex ak ak yelleefu tout temps yi ak xeex itam lépp lu jëm ci tukki gu jaarul yoon gi réewu Sénégal ak réewu Gambie yëkkati nañ seen kàddu ngir gën a ñaax wala sax tàggat ñuy yëngu ci wàll woowee dinañ wax xamante ni mën naa rekk bokk ci luy ñoŋal nekk ñenn ci askan wi ci buñ ko seddalee ci nu mu waree ñi nga xamante ne si rek ñoo yor te am doole wala rek daal di koy jox bu baax ñi nga xamante ne si ñoo ko yeyool loole nekk rek ñetteelu ponk ponki euh, l'islam ci biir xibaar yi euh, dinañ xool ana nan lañ koy séddalee wala sax ana nan lañ koy joxe oustaz. jërëjëf Abi ñu sant la baax gërëm la kon benn waxtu ñëpp a ngi nekk incha allah. incha allah waaw jërëjëf Abi. Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi bàyyi xel xam naa waxtu euh, waxtu wi li ci des lu néew la pour ñu yëkkati jataay bi waaye xam naa danañ xool bu dee dinañ koy wéyal danañ ko wéyal. Mhm. allah danañ ko wéyal ñu ne waa Réginé ne danañ ko wéyal. Mhm. kon man ngeen a xaaraat semaine bii ñëw ndax thème la boo xam ne comme niñ ko waxee defe naa kuy déglu appel yi nii da nga xam ne am na am na lu ñu laal ndax ndénkaane la ñu wax ndénkaane ah. duñu du ñu fésal problème mais dañuy bëgg solution dañ naan góom baa ngi mais saafara saa ngi ni loolu mooy philosophie émission bi muy ndénkaane du rek dañ naan société bi fii fii fii fii waaye dañuy jéem a indi yooyu waaye indi tamit solution gannaaw nag dañu laal point boo xam ne nii société bi gis nañ ne ñu bari intéressé wu nañ ci moo tax euh, ñu bëgg ko wëyal ba semaine bi ñëw pour mu gën a yaatu ñu dalalaat ñeneen gën ko yaatu yaatulaat incha allah salaamaaleykum soxna si na nga def. maa ngi fi. dafa am looy laajte. dama leen di gërëm sant. jërëjëf. dama bëggoon laajte rek dama amoon benn problème. Mhm. problème bi kii problème biir doon metti la. léegi après ma dem ci gynécologue bi. Mhm. léegi nee gynécologue bi après bi ma demee foofu def analyse def écho. nee nañ dara gisuñu foofu dara léegi nag ma dem ci beneen kii beneen sëriñ moo ma gis mu gis sama sama biir bi lu mu lu mu ngandee ak sama sama tànk yi lu muy néewi noonu après mu wax ma demaa ëmb léegi maa ngi faj ci garab euh, olof yooyu noonu te ëmb bi léegi mu ngeen am normal loolu damay laajte soxna si rek ndax ëmb yooyu noonu Euh, léegi ëmb bi mi ngi normal gannaaw bi mu lay faj. waaw léegi gannaaw kii boobu noonu dafa doon sañee ci sama euh, sama ginnaaw rek lay doon kii def foofu ay signe rek léegi nag affaire bi wàcc na ba nekk ci biir bi nii. Hmm. d'accord dégg nga dégg nga li mu laaj ah. dafa seetlu gynécologue hmm. gynécologue bi xamal ko ni que ni moom gisul kii problème bu ko tere am doom mais mënul. amul doom. mu dem seeti benn koo xamante ni sëriñ la kooku am ñu mu ko doon defal ci digg ginnaaw bi ba léegi ëmb na ëmb bi mu mu ngi fa. Ah. léegi loolu nan ko mën a expliquer. ko mën a mooy li ma doon wax rek. peut-être que gynécologue bi explore na ko gisul dara. waaw mhm. ah, mooy li ma wax rek man te loolu li ma wax sax euh, stress bi ma doon wax wala yenn kii yi peut-être mun na am am solution ci ci sëriñ boobu peut-être. d'accord amul cause amul cause. maanaam ñu dem na ci sëriñ bi am na. xam nga parfois li mu wax rek. communication waxtaan. ak am na yu mu koy defal peut-être ah on est en Afrique ah. non non réalité nag vraiment dama respecté loolu aussi. d'accord maanaam bañ a desal ginnaaw est-ce que tey. comme que tey wax nga ko léegi ci sa wax tey. médecins yi doyul est-ce que tey jotul aussi que ni tey état parce que mbirum faj dafa nekk loo xam te ne lu doy waar la. ci mbirum ñi nga xamante ne tey moom la wax les tradipraticiens mhm. ñi nga xamante ne tey ci domaine boobu noonu am nañ seen xam-xam màcc na ci dëggantaan tey ci yenn zone yi ñu leen yenn gynécologue ak yenn kii nga xam ne ñoom mën nañ partager seen xam-xam aussi mu a nekk njëriñ pour askan bi ndénkaane bi may joxee bi may bi may sama ndénkaane rek moom mooy li may wax négal négal ndénkaane ñu ñu jël kii jeexalee ko salaamaaleykum waaleykum salaam yow yow yaay doon ki ñuy mujjee jël ci plateau tey bi incha allah ci téléphone bi. jërëjëf. allo. allo. aha allo. Oustaz Samsir Khoule. Oustaz Samsir ñu ngi lay déglu. Euh, réseau bi daa mel ni day dàgg de ah. ah ñu ngi jéggal oustaz bëggoon nañ ko dugal waaye waxtu wi sax mi ngi mu ngi jeex. Mhm. sa ndénkaane seexu na. Euh, sama ndénkaane li may dénk li may njëkk dénk suñu autorité yi laa koy dénk pour man li nga xam te mooy problème Sénégal problème de politique la. Mhm. tey volonté la laaj parce que tey pour moom la ñuy jël di ko déggee di ko def ci yeneen ci ay détails comme ni mu ko waxee ci yenn journée yi démb rek maa ngi koy wax. naan tey da ngay dégg ñu naan la journée de l'élevage mu nekk journée bu mag nga dégg ni xaalis ñu ciy dépensé c'est des centaines de millions chapiteau bi rek bâche bi rek jënd na ay matériel pour ay hôpitaux yooyu noonu c'est des choses yoo xamante ni tey mm-hmm. waroon nañ jël ressources yooyu noonu def ci yooyu noonu au juste ñu mm-hmm. dérivé ko yóbbu ko ci ñi nga xamante ni tey mooy priorité pour sénégalais yi <gasps> tey accessible ci milieu rural yi yooyu xam nga parce que tey yooyu noonu mooy priorité gën a formé waat voilà a yokkaat aspect aussi communication parce que tey ministère yi nekk ci Sénégal yëpp tey dañu am budget communication ba pare ñu am ministère boo ministère boo xam ne ministère communication la mu war a mën a communiquer xool si ak aspect yi nga xam ne dafa sensible aspect yi nga xam ne dafa laal sénégalais aspect yi nga xam te ne mu ngi tas ay kër aspect yi nga xam ne mu ngi tas ay couple mu communiquer a def ay caravane de dem ci dëkk paa xam nga tey xam nga tey soo seetloo yi ñuy def yëpp muy jaar ci télé am nay dëkk yoo xam ne ak ay village yu Sénégal amul sax courant xamuñu ko sax mm-hmm. amuñu sax téléphone bu ñu ko a def ay mm-hmm. ñoom ñoo gën a vulnérable couche yi a vulnérable xam nga tey sama téléphone do ñu nekk si kër mais tey dañu war a génn dëkk bi au juste dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gën a soxla ñoom ñi nga xamante tey dañu war a dem ci yooyu da ci profité di souhaiter joyeux anniversaire sama benn rakku jabar Khady Gueye mm-hmm. d'habitude xam nga su may génn sama kër sama jabar moom mooy toppatoo sama doom moom mooy neex ñoom démb la woon mais démb damaa ñëw génn dénkaan dem rek mu poñe mu xam nga maa ngi koy bégee lu bëri kon tey du la poñe <laughs> d'accord merci Amady luy sa ndénkaane balaa ma ko dafa am ku may laaj mu ne nga la waxal ko ni ko invité la lu ci diineem wax ah invité boobu ñuy def luy loolu. in vitro maanaam jëli kii insémination lan la ci diine wax balaa mu lan la ci diine loolu loolu ñoom Oustaz Makhtar loolu loolu la ñuy tuddee fiqhu nawazil fiqhu nawazil bu ñu ko waxee. mooy mooy li nga xam ne. xam nga dafa am loo xam ne tey jii si wàllu. charia bi mooy hmm? dugalaale kii bi ah. mooy dugalaale. mooy dugalaal ndénkaane bi. waaw waaw loolu loolu dañ ciy ñëw loolu il ñu def si ñu def si ñu def si parce que man maa ngi maa ngi wër ay invité yoo xam ne incha allah dañ ci waxtaan. Mhm. ñi tekk indi ay gynécologue indi ay borom xam-xam yoo xam ne borom xam-xam yuy tolloo ak jamono ndax tey jii bu dee ci wàllu fiqu Oustaz Maxtaar moo la gën a xam ne al asyu fil asyaay al ibaha loolu ay qawaid la maanaam ad darurat wal mahdurat loolu ay qawaid la mais dafa am yeneen yu ñëw di bees tey jii nag in vitro yooyu ñuy wax ak ak mère porteuse ak yeneen ak yeneen ay mbir la yu ñu war a def taxaw seetlu waxtaan si ndax li ñu tuddee fiqhu nawasil dañuy indi ay boroomi xam-xam yuy saytu lii nii lan la ci diine wax ñi def qiyaas tolloole ko mais dafa am loo xam ne bind nañ ko ba teg ko ba pare mais in vitro doom ji kan moo ko jur loolu la ñuy laaj est-ce que yaay gi la est-ce que baay gi la loolu mooy poser problème bi ci wàllu miraas ak wàllu ya ci aju. déedéet moom mu ngi taxaw nee na lu ci diine wax. ndaxte nangu na ko moom fi muy waxee xam naa ko na. waaw na su fekkente ni jëkkër ak jabar la. maanaam amul donneur. maanaam jëkkër ak jabar ñoom ñoo ko seq maanaam jigéen ki moom la. fi nga xam ne fa la mën nen bi war a jaar fa mën war a jaar pour dem fekkoonde ko moo xat wala amul fu mu jaar su fekkee dañu ko collecté ci ku jigéen ki ak ci jëkkër ji boole dara newu loolu laa expliqué bu dee leneen moom as bi moom laa la bëggoon laaj ñoom ñaar la donneur doom xanaa sama dénkaane mooy mhm. ñi feebar ñu mhm. dem jege genre ñu mel ni wàddini mm-hmm. parce que ñun jigéen dañuy toog rek mm-hmm. suñu xësee ba def benn affaire dootuñu amuñu suivi mm-hmm. suñu problème yëpp loolu la di leen nuyu bu baax a baax di nuyu Cheikh Ouna di nuyu docteur docteur lan ngay tàggatoo barki dem anniversaire loolu rek comme ne Cheikh Ouna wax rek ñu jéem a politique sanitaire bi parce que wax dëgg yàlla war nañ